bismillahi rahmaani rahim israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu Sud FM seen rajo seen jotaay mu tuddee al bidaaya ngeen koy am guddi aj mu jot ci waxtu wi dellu si na dinañ ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk alxaaji Sëriñ Mbàkke Sylla ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bi ñu sante sunu borom subhaanahu wa taala julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan jàmm ci réew mi réew yi ko wër jaajëfal way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 allahuma amin yàlla fekk leen jàmm xaaj mbàkk nu jotaay bi tëddee jërëjëf oustaz niñ ko baaxoo tërale rek lañ koy tëraleeti insha allahu taala ne suuti daañu ñëw ci xibaari daara ji maanaam xew-xew yi gën a ràññiku ci ay bis gi ñu nekk ak gi ñu génn buñ ca noppee ñëw ci laaj yi ñu mbokk yi bind ci email bi di albidaayatu arobas yahoo point fr noonu la ñuy wéyale jotaay bi ba min wi jot ñu yëkkati ko ci xaaj bu njëkk bi dégtal leen xibaar yi ci français ak ci wolof dellu si ànd ak auditeurs yi ci téléphone bi ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk bitim réew ñi nekk ci biir réew mi mën a woote ci 88 628 98 98 33 841 22 33 ñi nekk ci euh, noonu lañ koy wéyale kon bu xaaj boobu jeexee ñu daal di ñëwaat ànd ak euh, mbokk yi ci tafsiru quranul karim bi ñu amoon amoon ay bis gi ñu génn buñ ci noppee ànd ak ñoom dégtal leen alkitab moom itam di bi ñu amoon ay bis gi ñu génn noonu la ñu wéyale jotaay bi ba 5 jot ñu déglu alquranul karim 5 heures 30 ñu ànd déglu almisbaax 6 heures ñu ànd ak mbokk yi déglu waxtaanu fajar yi tey di alxemes kon fajaruk àjjuma la waxtaanu fajar yi day baaxoo amub tem tem bi mooy doon ilallah ibadallah maanaam jéego yi nit ki di jéggi jëm ci boromam subhanahu wa taala oustaz noonu la jotaay bi fas yéenee tëddee fa jazakallahu xayra jërëjëf oustaz jërëjëf ci nuyoo yu am solo yooyu nga ubbee jotaay bi eh, bég nañ ci lool ak eh, ruq-ruqaan yooyu nga dugg yëpp ak soppeek am di jàmm yooyu nga xam ne nuyu nga leen mais bi yoon Saliou dafa yàgg ci àll bi de waaw Saliou de daa mel ne tukkeem bi moom tuwarkal la naan ah, na demoon Dubaay <laughs> Saliou sëñ bi nee na foo nekkoon <laughs> Dubaay nga demoon wala fan <laughs> nee na mi ngi woon Europe rek. Europe ah comme tubaarkàlla. ci ruq-ruqaani eh, Europe yi daal. Europe de am na euro. Mhm. waaw. Europe am na euro. <laughs> ana euro yi kon. <laughs> tubarkàlla noonu baax na ñu amaan bégte loolu moom it ci teewaayam. wallaay ak bokk gum bokk ci jotaay bi. ndeysaan tubarkàlla tubarkàlla. Mm, tubarkàlla soxna Fatou Thiongaan ab jigéenam la bu nekk foofu ci France oustaz moom it ci sa soppe la bokk nee na ngi lay nuyu bu baax a baax. ndeysaan sopp naa ko tubarkàlla. macha na ngeen def ak coono yi. ñoo ngi sant yàlla bu baax sëñ Mbacke. bàyyi nañ ci jàmm bu baax a baax. waaw ñoo ngi ci jàmmi ndongo jàmmi ndongo. Mhm. alhamdulilah. jàmmi ndongo. <laughs> jàmmi ndongo di nab nabi rek. waaw wér yaram te amoo xaalis mooy jàmbi ndongo. ah d' accord loolooy jàmmi ndongo. Mhm. wér gi yaram te amoo xaalis. waaw mooy jàmbi ndongo. <laughs> ndeysaan. Mhm. est ce que. jàmmi sëriñ nag day boole wér gi yaram ak xaalis. ak xaalis. xanaa loolu tax sëriñ si mën a xat ñoom di tëjoog euh, kii daal tuuti waaye ab dongo moom daa mel ne du tëju de. Ah, dongo du tëju parce que comme amagul barke lay wër <laughs> foofu muy am yi muy doxali boppam. da koy lijjanti ji da koy du baax. <laughs> jàmmi ndongo daal kon mooy koo xam ne am na jàmm. waaw wér na waaye yorut. waaye yorut xaalis dara nekku ci. ngoog <laughs> loolu la jàmmi ndongo ndeysaan est-ce mm-hmm. baax na réew mi. réew mi dama ngi riir rek. Hmm. tabarkalla ñoo ñoo jëg jàppal bàyyil daal moom. xumb na de. bu doon tax dem nun sunum réew mooy jël pee ci réew yi. la de ci côté yëpp nag. dëgg la de waaw. dëgg la de ndax nun daal moom yëf yi. Hmm. tabarkalla. Hmm. Ah, waaw waaw. macha allah mu yéeme lool <laughs> tabarkalla. ñaare nag mu yàlla def muy ñuy wax. du bari kurpañ. daawu ko bari ndax wax ji day yóbbaale gaa yi. xeexu diggante yi. waaw bu wax bëri rek du am. dëgg la waaye koo xool rek. jëf moo tax ñun wax ji def ci baax mu ñu ngi ñu fegal yu bari mm-hmm. waaye wax ji nag bari na mm-hmm. yàlla xam na ko dëgg la waaye nag mi ngi feg yu bari nag dëgg la waaw dëgg la bari na lool de moom bari na lool daanaka boo taalee rajo yi dégg ñuy coow waaw maanaam ta day mel ne coow lu ñëw rek leneen coow ñu koy fàttaloo daal. sa ça noonu la noonu la. Hmm. dañu nekk ci coow lenn. Hmm. leneen ñëw tax ñu fàtte coow lee. ndeysaan wala bu ñu ko fàttewut mu wàññeeku. leneen ñëwati. muy lu yéeme. waaw yéeme na lool de. tubarkàlla wallaay ndeysaan xam naa ne daal euh, noonu rek la demee moo tax itam oustaz ci coow coowaan yooyu sax ñaare mooy actualité mhm. moo tax saa yu journaux yi xëyee am luñ bind mhm. gars yi revue de presque ko nit ñi déglu ko <laughs> bu ñu xëyee itam ñiy def journal toggub journal dootu leen jafe ndax saa yu ñu xëyee rek ami xew-xew yoo xam ne moom la ñu jël teg taabal bi loolu daa mel ne mook àddunaa ànd réew mu nekk ay xeeti xew-xewam daal réew mu nekk ay xeeti xew-xewam mhm. ñool ñool ji jàppal bàyyi. dëgg la dëgg la eh, RP yi fii journaux yi fii da nga xool lii xibaar lépp. te taxul mm. xibaar doy. wallaay wallaay. télé yi mm. ñaata lañ léegi. bari nañ tey. rajo yi ñaata lañ léegi bari nañ bari nañ ah, bari nañ waaye teewul xibaar doyut. lool lool dëgg la. loo jël rek xëpp ca tabarkàlla. Mm-hmm, mm-hmm. te loo ne bu subaa laa cee wax. Mm-hmm. tey lay xew dëgg dëgg la ah. loo ne suba laa ci wax tey lay xewi. tey lay xewi. ndax benn xew-xew mu ñëw tax ko mu xew xewi ko moom. Mm-hmm. boo see wax nit ñu dañuy yëg yëg ne léegi. yaa ngi def hors sujet. Mm-hmm. ndax lii xewi na bu yàgg. waaw mooy yëgoo xew. am nga yëgoo li xew gi ñu ciy wax. macha allah am na solo de oustaz. Mm-hmm. jërëjëf ñoo ngi leen ci jaajëfal bu baax ci taxawaay yooyu ak actualité beeg ni mbir yi di yëngoo yëpp rek. alhamdulilah ngeen di ànd ak ñoom bokk ci ñi nga xam ne ñu ngi dalal société bi ci ay pàcc pàccaan yu bari. waaw waaw loolu de moom la ko yëntu ba bëggee woon. ne ci biir nit ñi. université yi muñ seen benke ñenke yi mhm. moo ko gënal beru dëgg la moo ko gënal beru waaw hmm. yonent hmm. ci biir nit hmm. seen benke ñenke moo ko gënal beru kon du caagi ne yëf yi day kii rek kenn ku nekk dem toog ki ruqam ak yooyu déedéet moom bëggewu ko noonu moom bëggewu ko noonu sunu mbokk ma def daan lépp li bu am solo ndeysaan sànq suñ Issa bu jam di ko fàttali sas Aline dëgg la mu ne boo yoroon kilo or. Hmm. romb benn foos. Hmm. nit ñi ne ca foos ba sa kilo or ba na ca pëy. Hmm. te yaa ngi ko takk ci mbuus nooy def. <laughs> fekk leen ja ngay def <laughs> mu ne fexe ba jot ci rek. <laughs> fexe mu ne ko nag jullit boo gis rek jàppal ni kilo or la. jullit boo gis. jàppal ni kilo or la. te boo ko séenee fu neexut yàlla. jàppal ne daanu ci foos ba. waaye ak lu foos ba mën a xayee di xayee di moom jullit bi kilo or la bu ne ci biir rek boo ko dindee rek mu baax dindil te fomp allahu akbar ah misaal moomu xóot na yéeme na waaw ah, mun na ko jullit boo gis mhm. mu nekk ci lu mu war nekk baa mu dugg fu mu war te dugg mhm. jógal ne ma nga ca foos ba dëgg la léegi nag comme kilo kilo or mm. na la taq mm. na la mm. ba jotaat loo ko raw na la kub jullit jaral dëgg waaw jooju wax rëy na te bari ay bari am njàng la ngay la macha allah yal na ko yàlla yërëm amiin tuwarkal la waaw ah, waaw mag ñooñu daal tuwarkal la réew mi daal ku baax yàgg na fee jaar eh, wallaay ndeysaan waxee ñu ne nag ndax bëgg nit ñi yeewu damaa xamul lu nu dal ndax sëñ Mbàkke mhm. defar nit te seexlu ko moo yombut waaw defar nit te seexlu ko moo yombut mhm. nit kenn ko seexlu baadu koo seexlu doo ko mën a defar doo ko defar waxoon naa la ko ca sunu tafsir ba mhm. bu gone jógee ca fa muy jànge yàqi tànkam hmm. ñëpp a koy seexlu wallaay directeur école ba nga hmm. ko doon jàngal hmm. moroomam yi ku mu romb ci mbedd mi kenn rek lay jëm ci moom mu yaayam wallaahi wallaahi moom bu ko defaraatee ba ba bàyyiwaat ko ci mbedd mi mu ànd ak ñëpp comme mel ni ñëpp moo tax nit ku ko seexlu doo ko defar dëgg la dugg ci seen biir di mu benk ñenk di muñ jàppal bay lii allahu akbar ndax yonent bi leçon ba mu njëkk a jàng mooy iqra bu ñaaral ba was ala ma yaquluun wasbir biir ma yaquluun dëgg la oustaz na nga jàng muñ benk ñenk yi nit ña lay wax mhm. te yëg ne dangaa bëgg defar te ko deful mun te defar kenn dëgg la defarul ndax nga defar leen moo tax ba na ko wasbir ala ma yaquluun ba delsee mhm. daf na ko xum fa andir mhm. ginnaaw jàng nga defaru nga koo defar mu defaru hmm. defareel xum fa ansir defareel defareel est-ce que ku defaru ba noppi da defare waaw kon beru di defaru yomb na waaye nag euh, defaru ba noppi dem defare ji moo gën a jafe waaw ku beru sax du defar hmm. ku beru hmm. li man mooy defaru waaye defaree moom ku ko bëgg da ngay dem ñi ñu defar nga defar leen xum fa ansir waaw waaw macha allah lu am am na solo oustaz jërëjëf ci taxawaay boobu ginnaaw bi ñu ubbee jumaay masaalikul jinaan ba noppi donte ay bis yee yëpp ak la jiitu moo nekkoon actualité. Mhm. keroog ubbite ga de xumboon na lool. Mhm. yàlla dogal na ñoo nga fa woon ak yow. Mhm. Eh, ci taxawaay boo xamante ne am na lool julli di yëg ko mu eh, amoon nu mel lool waaye dañoo noppi rek war koo jàngat. actualité ba daal di mujj eh, am lu ëpp doole ca xew-xew ba fa xew daal di yóbbu lépp. ba lool sax la ñuy ànd ak euh, doomam président Macky Sall. Mm-hmm. seen diggante 2012 ak léegi amul fu ñu leen séenee ci ay bët ñu bokk ab jotaay toog. wala fu ñu yëgee ci kaw ne joxante nañ loxo loola nekkoon lu rafet a rafet rafet man jàngat nga ciy def. waaw di ko rafet rafetlu ba fii ma toog. Mm-hmm. Mbacke. Mm. wax daal la man su ma sañoon. Mm. lay séen. Mm-hmm. ñu bokk nekk benn. Mm. dëgg la suma ma kon. wax naa la keroog ne la. bu ñu nee vingt milliards lañ def ci masalik. jubóole ñaar ñooñu. léegi ñun lu ñëwati bénéfice la. la dëgg la la. lu ñëwati bénéfice la. dafa fekk ne xam nga niveau niveau boole leen nag. ah. waaw dimension boobu. yombut waaw très bien. yombut. moo tax lu am solo la. dëgg la ak itam luñ commenté liñ ci mën a def. ak luñ ko mën di moo xam juboo moo xam ñàkk jibo dëgg la bokk nañ sàppe joxante loxo wasalaam commentaire ñoom juboo woon nañ bu yàgg ñenn ñi naan lii ab diil laak mm, dañuy kompaloog wala mosuñoo dëngoog am na lu ne ci ginnaaw yooyu yëpp kon amul solo déedéet mhm. inna ba'da mhm. dëgg la gis nga mhm. defee dara saa boo ca gisee lu dul noona seetal sa bopp dëgg la waaw tey maanaam affaire bi Euh, da woykatu arab ba def ne hmm. isaa saa filul mari hmm. saa dununuhu nee na ku ñaaw ay jëf hmm. ñaaw njort mënoo fexe ba doo ñaaw njort dëgg la mbàkke mas ngaa lu dëng ker ga ker ga jub mënta jub di <laughs> ker gi takk ndeer la ci eh, li dëng di jeex na moo tax nañ ci rafet njort wéy ci njort yu rafet ñaanal leen wag leen waaye nit dañ dañuy war di dañu war di encourager lu baax. Mhm. tey décourager lu baax. dëgg la mais oustaz politique bi ni mu amee doole ci réew mi ba lu toll ne jumaay Masaalikal Jinaan ñu ubbi ko. ak liñ ca mën a jàngate lépp lépp ginnaaw ba mu mel ne menn njàngat rek moo ci gën a fés mooy jubóog ñaar ñii. Euh, jubóog gi daa toll noonu ci dayoo wala lan moo. toll na ko di. Mhm. parce que danga koy jël ci àngalu. Mhm. ñoom ñaar d'abord a julli lañ. waaw dëgg la. kon kon comme génnuñu gétt gi. Mhm. soow <laughs> mhm. mi it génnul gétt gi. kon jàngat seenu juboo tegtalewul ne dañoo génn euh, solof jumaa ji. waaw parce que buñ ko jég jëlee rek yóbbu ko ca politique ba. Mhm. foofu day sori. nañ ko def rek ne euh, meew mi génnul gétt gi rek. dëgg la waaw dëgg la. alxaaji Ablaye Wade. alxaaji <laughs> Macky Sall. <laughs> alaaji kay. ah <laughs> ak cheikh cheikh cheikh cheikh mun Muntaxa. waaw alaaji alaaji alxalifa cheikh Mouhamadul Muntaxa. <laughs> soo mi génnul soo mi génnul génnul gétt gi. ndeysaan. ah est-ce que. macha allah. Mhm. lu ama am solo la. Mhm. dëgg la tabaarkàlla dëgg la dëgg ah am na solo de oustaz kon mi ngoog xam naa li ciy toftalu rek mooy dugg nga ci léegi mooy commentaire yi léeg-léeg. waaw ak yi nga xam ne moom lay am yow tey politiquement. léeg ñun moom bu ñu waxtaan ci daara ji lépp lu man di xewi daara ji da ci am njàng ñoom seenu juboo ban mën naa koo tuddee laaj bi ban njariñ la amal réew mi oustaz jërëjëf ba tax ñu def ko solo si ñu ko jox waaw xam nga hmm. boo gisoon jox ko solo hmm. mooy ñaar ñoo xam ne hmm. bu ñu dóorante woon ne kurpañ du métti ñoom ci ñun ñii lay métti dëgg la bu ñu fexee ba kenn dóor morom jokkoor pañ kay jàmm ne na ñooy. Mm-hmm. mais ñoom depuis 2012 ba léegi ñi ngi toggoo jiit nii teewul réew maa ngi dox euh, vraiment ñu ngi ci jàmm ñun ñëpp léegi nag ñu juboo ñu bëgg a jàpp ne juboo gi baax na ci réew mi day indi naataange day indi nangam lan la ñuy indi. Euh, lu mu ñuy apporteel. <laughs> bu bu indiwul naataange. Mm-hmm. dafa am jaww. Mm-hmm. lu ñu tuddee jawwu jàmm. waaw climat bu dal daal. climat très bien <laughs> parce boobu. Mm. loolu fi la yëf yi nekk. dañu daal jubóo rek kenn ko kon nag defal nangam defal nangam ñu daal départ. Mhm. ñu ngi doon dox ba ba léegi. Mhm. waaye jaww jooju dafa am solo. Mhm. mooy jaww ñu yëg ne jàmm am na. jaww ñu yëg ne jubóo am na. gis nga ñi ñi nga xam ne dañoo ci jub ci ñàkk jubóo gi dañ ci am ay retombées. ñoom jubo gi du doon arrangé. dëgg bu ñu sañoon lool loolu du am. waaw donc am gi am na solo. am na solo bu baax a baax a baax. macha allah te itam kenn ku ci nekk ci ñoom ñaar da nga yëg ne yëf yi am na solo. Mm-hmm. su ko defee nun ñu daal ci yëg ne nun itam am na solo. Mm-hmm. waaw loolu rek la. macha ji daal mën na cee changé wu. Mm-hmm. benn climat bu am solo boo xam ne climat de paix lañ ko tuddee xaw ma climat lan daal am na solo ci wàllu googu. am na solo oustaz jërëjëf kon mi ngi noonu yàlla na jàmm mu jigee. tey loolu lu ñu yàgg a ñaan la nag ci diggante bi. wallaay eh, ñu nekk fi rek ndax yu baree bare da cee am ku mel ni maître Abdoulaye Wade mag la. Eh, man gëj naa koo gis lool lu jiitu bisub keroog ndax li ma ko gis ci àdduna bëriwut waaye coroog ba mu ñëwee di julli si moom gis naa ko nga yëg ne mag la léegi lool nekk mag googu nag day tax eh, itam ak lim ji réew mi ak digganteem ak président Macky Sall mhm. da ngay yëg ne juboo gi sax neex na ko moom en tant moom moom président en mhm. tant que nit koo xamante ne nii seen diggante daa war a tax ndax ne àdduna bindoo mhm. am na solo lool ak itam yëkkatoon ay kaddu wax ci moom wax ci mhm. teeyam mhm. wax ci liggéeyam mhm. wax ci yëpp kon bu ñol ñol amee nii seytaane bëgg caa liggéey bu juboo amee seytaane dana jël ay bagaasam dem dëgg la dëgg la tubarkàlla seytaane kay keroog moom mer na lool waaw waaw ubbiteel jumaa ji moom def na fi ay jeexital yu rëy rëy rëy rëy ayu saminillahu inde jaawali iblisa isnaadaytuhu bi yaa wali jeex na <laughs> jeex kay est ce que <laughs> waaw macha allah iblisa isnaadaytuhu bi yaa wali yaa wali mooy waa ji da waajaa ngir dem mm-hmm. nga woo ko mu ñëw nga dóor ko kurpañ mm-hmm. loolu mooy yaawali mm-hmm. wala ci ngeen baal ci misaal mi kay ngay football dribble nit waaw ba noppi toogaat di ko xaarat pour mu ñëw nga dribble waat ko waaw moom lañ ñaan di koy dëpp ka dippi <laughs> ah, nga korosete ko mu dëpp mu ñëwaat nga nga raket waa yow <laughs> est loolu que looloo yaawali looloo yaawali est-ce que moo tax comme Iblis jóg na fa. Mm-hmm. jubóo yi kii la jubóo kii ki jubóo kii. waaw moo tax jubóo yi bari na lool. gisuloo ci Mbàkke. Mm. ñu jullee takkusaan maanaam ba jant bi bëgg a so. Mm-hmm. nga jékki-jékki dégg astafurlah azim la si laa ilaaha wa ala. wallaay ndeysaan ilaahu wa ayul qayyum wa atubu xadara jumaa foofu. waaw waaw ci biir jumaa ji. waaw. keroog man daal xam na keroog. mer keroog. daan ñu xuuxale ku ne mën na la yaani ci dëgg tey ñu booloo. bu doon 2-0. Hmm. bu la 3-0 dóor ko keroo 4-0. dëgg la de dëgg ndax yu non affaire yenn affaire la ci ci ci biir sëñ oustaz si rôle bi jàkka mën a boole boole gi nga xam ne dafa lool ndax keroog dañoo toog man ak yow mhm. ñu gis ki nga xamante ne mooy président Idrissa Seck toog waaw nes tuuti eh, maître Madické Niang ñëw toog waaw nes tuuti ñu gis Aly Ngouille mi nga xam ne dañoo jàppoon ne ñoom koo ci romb doo ko nuyu ndax coowul Aly Ngouille ministre de l'intérieur moom mi mu ñëw toog ñoom ñëpp mel na ay doomi bàjjan toog di waxtaan oustaz ah, waaw léegi xanaa jàkk moom mooy li mën a boole ñëpp nag moom waaw law anfaqta mhm. ma fil ardi jami'an mhm. maa allafta bayna xuluubihim wallaay walakin allaha allafa baynahum waaw yàlla mun a doyu moom xëy mm-hmm. yéen nag bu ngeen jëlul àdduna li ci biiram lépp pour boole nit ñi la de du tax ñu booloo du ñu booloo ndax président woote na fi dialogue euh, leader yi maanaam parti yu baree bari ñëw nañ waaye ñii ma lim nii nekkuñ fa woon na yàlla mun nag doyu ko mu xëy mm-hmm. walakin allaha allafa baynahum tey maa leen di boole. waaw allahu akbar loolu tax noddogu ñu ñëpp ñëw. Mhm. nga seen kii seen kii seen kii mhm. ñëpp ci jàkk ji. Mhm. te amul ku ñëw dóoru ku ropañ morom ja. dëgg la de mukk xanaa kon oustaz sëriñ si duñ ay citoyen ordinaire. yi ñu leen waxoon maanaam bu buñ ne ay ordinaire it ordinaire yu yéeme lañ ndax liñ mën a dajale. koo xamante ne bi muy ñëw dëkk bi yëpp dañoo yëg ne mi ngi ñëw muy sëñ Muntaxa teeroom boobu. defe naa gëj na ci réew mi. réew moo dem. waaw. dafa am tudd ay intouchable ay intouchable laami saasa lañ koy tuddee. Mm-hmm. laami saasa. laami saasa. Mm-hmm. bul laal. waaw <laughs> loolu yàlla koy jox nit. Mm-hmm. gis nga alxuraan. Mm. alxuraan lu yéeme la. dëgg la. dafa wax ne. Mm. Eh, yarfa illaahu lasina amanu. minkum wala sinu utul ilma. darajaat xam nga ñaar la wax. waaw. yarfa illaahu lasina amanu minkum. door a wax wala sinu utul ilma. na alisina min minkum mm-hmm. loolu sëriñ si mm-hmm. kenn mu leen koo xaj mm-hmm. wala seen utul ilma mm. euh, mi ñu koy xañ ci borom kii mooy président yi politiciens yi waaw mënu leen koo xañ ku ci nekk cër bam am est-ce que buñ ko ko joxee rek jàmm na ñooy te loolu alxuraan ko jàngale dëgg ñaari nit la wax de que te ñaar ñooñu la waxee na bu ñu yàqoo penc mi yàqu sinfaani min ummati isa salahu salaha naasu wa isa fasadu fasadu naasu jeex na al umara wal fuqaha muy sëriñ si ak ak politiciens yi <laughs> donc loolu loolu li si jàkk man dajale leen rassembler leen <laughs> mhm. teg leen ci wenn yoon mhm. moom rek moom jàkk moo ko man dëgg la ndax boroom jàkk moo ne wa yàlla moom. Hmm. loolu dañu ko xëy. Hmm. Hmm. moo mën a boole seeni xol. walakin allah allafa baynahum. macha allah jërëjëf Oustaz loolu loo ama am solo la loo xam ne it Oustaz bu ñu ko yaatalee day mel ne daara ji. ak li muy produire desut ginnaaw. ndax itam boo seetloo euh, jamono yu baree baree bari dañuy jàpp ne njàngum alxuraan ak daara sax. Euh, ay ay jeexitalam yi muy def ci nit amul solo. waaye bu seetloo ci réew mi li fi waa daara réaliser. ak taxawaay yi nga xamante ne moo am ci jeexital yooyu donte nag ñëppay ràbbale ay goj waaye ñoom daal am nañ ci wàccuwaay bu buñ ko fi jëlee li daara am hmm. buñ ko fi jëlee mu jeex dëgg la de li fi daara am buñ ko fi hmm. jëlee mu jeex dëgg la dëgg la wallaay ëpp na fee jëlee te soo seetloo hmm. jamono nga xamee ne ministre yu bëri dañ daan jóge ndar di ñëw di di nekk ci gouvernement bi ministre yu bëri dëgg la waaw jamono yooyu te te ndar lu gën a tuuti dugg alxuraan wàcc wàccati. seeta lool ni ni ni yëf dale woon. daawoo dégg këpp kees. déedéet am na yu bëree doo ko dégg. loolu daara moo ko mel. ndax daara jom. fit doylu. kenn fekku ko ci. kenn ko ci. dëgg la jom. fit fit jom doylu. kenn fekku ko ci. déedéet moom daara. Cheikh Mountakha mii. ndax université la génne. ndeysaan. ban fag la fa nii. Ah. ak yii. Ah. <laughs> déedéet jeex na wallaay ba ñuy ñëwee fekk ko ca jàkka mm-hmm. mooy chef. Mm-hmm. ba noppi nag yëg na tey maay chef. Mm-hmm. waaw mu def ba noppi wanul leen ne maay chef. loolu daar dong ko am. dëgg la loolu nañoo ñëw ca barab ba de mu ne Cheikh Bachir waxal waxal ak ñoom. ne cel buñ noppee mu def ñaan. dëgg la kan mooy génn naan. <laughs> lim wax ak lam nangam. <laughs> waaw lam def yëpp ci ciy ànd. loolu daaraa ko am daaraa ko moom. macha allah wallaahi wallaahi moo tax yonent bi wax ne. Hmm. ku yàlla jox alxuraan. Hmm. boo séenee kenn ñee ko. Hmm. li nga am yow nga sànni ko ci ñibbi. la dëgg la. tey alxuraan. boobu. <laughs> macha allah jërëjëf Oustaz teral na ku ne. teral na ku ne waaw ah, teraangaam yooyu mooy law ba euh, yii fi am yëpp am fi. loolu la ñu waxoon Abdoulaye Diabou Sénigo. Ablaye. yaa teral mu hmm. ne c'est laaj bu xóot bu xóot la. est yaa teral alxuraan. wala alxuraan la teral wala alxuraan la teral. ndeysaan moom daa tedd ba lu ci waaye laal tedd. mu ne c'est une question. ñu hmm. ne ko waaw. waaye ku tedd koy teral macha allah loo mën a defee alxuraan rek. Hmm. da benn benn xëy la lay xëy wala ñaar rek. ñëpp dégg la ñëpp yëg la ñëpp xam la loolaal ci mu barkeel wa innahu hmm. la zikrun laka wa li xawmika wa sawfa tusalu jeex na masha allah loolu rek la tey alxuraan moom mel hmm. tabarkàlla téere baa ngi noonu ñam teraloon ñooy gën a tedd lay eh, yemuñ sax ci gën a tedd léegi waaye seen mbokk sax dañuy far di gën a tedd kuñ joxoñ nga tedd kuñ lox kuñ <laughs> kenn mënu ci dara kuñ taf li nga tedd <laughs> wallaay wallaay wallaay oustaz xam nga ne waa alxuraan rek ñooy tabax ci réew mi jumaay ñaar fukki milliards ak eh, eh, ñetti téeméeri millions te jeex la waaw nga xamante ne dégg naa sax am na tubaab boo xam ne ba mu ko yëgee dana yéen réew yi amatu leen maanaam droit dem ci bitim réew di yalwaan yi wala ngeen di lebbi ma ne ko dëgg-dëgg li ñu amit buñ booloo woon war nañoo mën a def lu tabax jumaa ji luñ fi mas a santaane ci réew mi te ab xaalis di ko def def nañ ko luñ fi santaane te doole di ko def nit ñi defal nañ ko. ma ñun suñu mbubb oyof yi dong. waaw toog nañ ca télé ba dajale fa téeméeri million. waaw dëgg la de yéen ñi. waaw ndeysaan. ci ñaari semaine. dëgg la de te bu ngeen ko bëggaatoonoon subaat bu ngeen tàmbulee dajaloo mu dajaloo waat. maa daal loolu jaaxal na ma réew mi am na xaalis oustaz. am na ñu nangoo joxe xaalis te itam réew mi ñu ngi ci réew mu ñàkk soxla xaalis damaa xamul ni ñu koy laajee parce que boo xoolee wàllu impôt tey <laughs> impôt dañ koy dañuy topp nit naan ko fayoo impôt dégg naa kër gu ne sax am na lu mu war a fay ci at mi eh, nit ki buñ ko daggee impôt ci salaire muy bëgg dee te mën naa am li ñu dagg ci impôt ci salaire mën naa jël salaire ba def ko ci enveloppe dem jox ko nit te yàlla tax léegi yàlla moomu buñ ko buñ ko buñ ko jëmbatoon ba yàlla tee nit ñee nelaw est-ce que du kon li ñu laaj lépp du far sotti ñun dañuy jàng te duñu jàng suñu diine <laughs> waaw sëñ Mbàkke mm. gis nga li ngay wax nii mu mm-hmm. ci mas a fekk benn xew-xew ci njari Touba Njaay mm-hmm. boobu alaaj Njaga Njaay ma nga faral ndeysaan amin bu rabbal alamin góor gu baax génn góor guñ fa doon fayu si impôt bi tax muy jël si ko war ko yóbbu kokki mm-hmm. na ko yëgal ci oto bi mu jëli mbubbam daal di yëg ndeysaan bi mu yëg ba oto bi bëgg a départ mm. mu làmb geño gi génn ci dix mille daal di woo ne moor mu ne waaw mu jox ko ko ne ko boo màggalee nga joxal ma ko sëñ bi. <laughs> ci moor. <laughs> dégg nga gendarme bi ne ko waaye loo ko jox ni mu ne ko ñaari junni. <laughs> mu ne ko loolu amel mu ne ko junni. lu tax mu ñaari junni fee. waaw te bi ne ko yow bu eh. tax nga yor ñaari junni. joxoonu ko xanaa bëgg ko jox sub sëriñ. Mm. mu ne ko damaa warlu woon ne su ma màggal see jox ko ñaari junni. Mm-hmm. waaw loolu moom maa ko war. maa ko war junni bii nag yéen ma ko teg. du benn. waaw. Mm-hmm. mu ne su ma leen joxul junni bi fi ngeen fi ngeen ma yóbbu ne gis ngeen ko. Mm-hmm. su ma ko joxul ñaari junni ba fa may demee dégg ngeen ko. Mm-hmm. sànq na ko wàccal. mu wàcc rek xëm. ndeysaan ndeysaan. waaw dafa wàcc jàpp ne moom sax tudd nga ñu fa waxtaanee addiyaam bi moo ko tax a jeex na te mënu ci dara. donc gis nga yooyu lañ lañ lañ waroon a def ci nit ñi. yar leen ci delloosiwaat ko. ñu waat sëñ Mbàkke amaat liñ amoon doon liñ doon dëgg la oustaz dëgg la loolu rek wallaay wallaay dëgg dëgg loolu nga wax te loolu itam moo mat a jàngat looloo mat a feeñal rek moo tax euh, bi ñu ubbee jumaa ji ba noppi ma dégg sax euh, ñoo xamante ne dañ ciy wax euh, léeg-léeg sax yenn wax yi nekk njuumte mm-hmm. ci feeñal xëy na loo xamante ne lu jaaduwul la wala ay sikk la wala nangam mm-hmm. may faral di wax ne léeg ak mbaax day ñëw yaatu yaatuwaay boo xam ne lu ca di ñuul ñu war koo mën a tëb te waxtaane lu baax la mhm. ndax loola nam toll la tax jumaa ji daal képp koy wax ak taxawaay yooyu ak euh, liggéeyu mag ñi bari na luñ mën a feeñal fi mu ne seen résultat mi ngi feeñ te day tegtale ne itam mbir yi yàquwul ba léegi te day gën a baax gis nga suñu bàkke hmm. mosoo tiim ceebu jën hmm. lu jum yëpp déedéet hmm. de xaw naa ko mën a waat waaw waaw mën naa am kay moom kay moo amit am na ci lu jum yoo soxla wut <laughs> ak yoo xam ne kenn xamul lu muy wut ci ndab bi jeex na <laughs> musuma gis mukk nit ku sukk ci ndab mhm. lujum bu ne mu laal ko musuma mhm. ko gis mhm. yam ci soxla lay jël yam ci soxla mu bale jeex na lu àdduna si yëpp nag lu lay demee bu fekkee da ngaa ñëw ci ndab li nag tàmbalee góo bëgg jàpp ne léegi lee moom baaxut lii moom baaxut lee moom sikkali naangam ak naangam la ma yow tee ngaa yem ci li nga bëgg ci ndab la rek su jóg jógee nga jóg du dëgg mm-hmm. salbiyaat am ci penc mag ijaabiyaat mm-hmm. ijaabiyaat yi moo man salbiyaat yi fuuf mm-hmm. sëñ Mbàkke bu ñu toppee ci nit di ko denc lan waxoon xam nga lu mu daan sallallahu alayhi mu ne lan uskuru mahasina mawtaakum kii ngeen di yóbbu lu mu rafet le wax leen ko ndeysaan ah waaw suñu bàkk mm. kii yóbbu amul lu lu mu ñaawle ah, ah, lu bari <laughs> waaw alayhi salaatu salaam lu mu rafet la wax leen ko hmm. te noppi ci ya ca des hmm. ah te yàlla kat ki ñuy yóbbu nii di wax ju rafetam yàlla xam na yu ñaawam hmm. mu bàyyi yu ñaawee comme nit ñi tudduñu ko ne ko yow yu rafet rek nga am yàlla ko ci jublu bi dëgg dëgg la man na ko ne xee bu leen nu rey li ngeen di wax lu ci dëgg bu doon nit en tant que nit sañ Mbàkke mën nga fi waxal nit dara am ku jóg weddi ko ndax kañ a añaane kooka dëgg la ci lu wér mais yàlla xam na loolu mhm. yàlla xam na loolu mhm. mu ne mu ay mbokkam naan kii defoon lu baax nangam ki nangam yàlla ne ñukk lu baaxul la fële mhm. léeg-léeg sax sañ Mbàkke du dugg noo ko fa ñukk dëgg la daf koy recycler yu baddu la say ajim xasanaat jeex waaw suñu borom jël ñaawteef yam defoon soppi lépp muy ay baax baax bàyyi mbir yeeg suñu borom allahu akbar allahu akbar moo nu gën fuuf du suñu borom dëgg oustaz nañ ko bàyyee lépp lekk waaw waaw jàmm na ñooy waaye lu ñuul lii ñuul ñuul bee nangam hmm. fii lu la nga sulli ko fa hmm, hmm. te am na suñ bàkk loo xam ne soo ca bëggee wane dangay ngay feeñ nit ñi léeg-léeg nga ne cell bañ a bëri dafa gën ngay bëri ci làmb ji dëgg la ndax boo bëree bëree te rek am mbër mu la ñuy ragaloon ñeme la wallaay moom kay bàkku ba xiir rek dem toog waaw di bàkku di toog rek ñu naan kii kuñ jàpp tey nga dee <laughs> doy na wax nga dëggu saas ci jeexital yooyu soriwul dara ñu noppi ci ubbital jumaa ji keroog dimanche ci ngoon ñu toog rek gis ne ki nga xamante ne mooy xalifa sàll nekkoon maire de Dakar mm-hmm. moom itam daal di génn ca kaso ba mm-hmm. ci ay wax yu bari ginnaaw bi nga xamante ne président def na loolu ñuy wax ak bale maanaam grâce présidentielle la am mm-hmm. daal di génn loolu itam bokk ci yi nga xam ne réew mi moom yàggoon nañoo dégg damaa xamul nag réew mi lu ñu bëgg ndax léeg dañuy taayu bam ba mu teeng ñu yolomal ñu ne lu tax mu yolomal ah. ndax ñu baree bari ci réew mi ñoo doon wax naan xalifa moom daa war a génn xalifa daa war a génn xalifa daa war a génn président li ko yoon may def na ko mooy def na baale ginnaaw bi nga xamante ne wax nañ ne euh, ay ñenn ci xali avocat xalifa ñoo ko sàkku waaye ala kulli alin daal génnu xalifa moom am na man jàngan nga ciy def man daal sëñ Mbàkke hmm. ba ma déggee ñu ne génn na hmm. bokk naa ci ñu wax alhamdulilahi rabbil alamin ndeysaan bokk naa ci sujjóot ñaari sujjóot hmm. lu tax oustaz sëñ Mbàkke kasu neexut wallaay fanaan al sax neexut mhm. ndax al asafaru qit'atun min al azab min al azab mhm. waxuma laa nga nekk foo xam ne dañ laa tëj kaso dëgg ñàkk liberté ñàkk lu baree bare loolu neexut ceet yàlla ñu ci dégg doy li muy naqari naqari ci père de la gën a naqari ah li muy naqari naqari cukk sa bëgg sa yaay nga xam ne ngoon gu jot nga bëgg ko la naqari ndeysaan donc suñ ne génn nañ la baal nañ la diwa ca dox waaye waaye dox dox yooyu comme génn rek la am de waaye gis nga luwaayu tubaab luwaayu tubaab dafa doy waar dëgg la de gaañu dañoo dem ni ngoro ji hmm. euh, seen goro toog ci ker gi gaynde ga wut si ko ndaw si ñuy ngoro mi ngi indi añ yaayam a ngi topp ci ginnaawam gaynde gi wut si baayam mhm. ñaari far yaa ngi ci tool bi mhm. wenn far wa samp xelam wuti kër ga hmm? waaw garab gi mu njëkk a jot hmm. mu ne ñolo ca garab ga weneen far wi risque mhm. risque summi tubayam yeew ko ci baatu gaynde gi waaw di xiiti xiiti rek di xiit xiit rek ba gaynde gi see dugg yi mbàkke faroo ca kaw garab ga ne ko duma ko nangu ndax lan mu ne mu ne ko parce que sa caay nga ko reyee te moom daa daw <laughs> te moom daa daw yëg ca garab ga ñoom ñaar ku ci tane xanaa kay comme rey na gaynde ak caayam kay wax dëgg yàlla ala ku daal def na ak njàmbaar moom moo xam bant la ko reyee moo xam caaya wala kiloot moom daal rey na gaynde gi rey na gaynde gi <laughs> kéwam daal la yëg ci kaw garab ga. ne ko sa caay nga ko rayee loo bëgg a jublu ci léeb boobu oustaz. mooy xalifa génn na. Mhm. avocat ma ko laa ak laaju ko. Mhm. waaw sëriñ bee ko wax ak waxu ko. waaw waaw. waaye waaye nañ ko wax nag alhamdulilah rabbil alamin dëgg la mu dem këram reer tëdd. mais na oustaz dafa am ay jeexital ak ay effet ci wàllu politique yoo xam ne est moo tax polémique boobu di am. maanaam ñi ñiy jàpp ne bu xalifa génnee façon génnin wii day tegtale ne dañ koo condamné loolu mën na koo xañ ay taxawaayam ci politique mën na koo xañ ci nangam jàppal tey nag ne hmm. génn géeg ñàkk génn dugg kaso bag yëpp hmm. politiciens yi moom koo ci seen hmm. ay calcul lay def loolu jàpp ko bala ngaa dem fenn kon mën nañoo jàpp ne kii baale itam mën naa am baale bi ci ko teg moom kay dama ne la xool ba doon moment bu baax ak contexte bu baax mu baale moom kay dama <laughs> jàppal ne ñoom ñëpp ci ay ci ay calcul la ñuy dox xam nga loolu. Mm-hmm. ci calcul la ñuy dox. wallaay ndax calcul yi mooy. Mm-hmm. dugg naa ci oto ba maag. Mm-hmm. Ablaye ma maître Wade. wàcc nañ ci ëllëg sa lii def nañ ko. loolu am na loo xam ne lii. ci ay jeexental. dëgg la munu caa ñàkk. mu munu caa ñàkk. léegi nag comme loi tubaab la dañ naan la bu nangam amee égal nangam la. ñu ñoom léeg-léeg ci yooyu lañuy ñuy dox. waaye daal génn gi moom. wax dëgg yàlla moo tax ne tëdd ci kaso dëgg la dëgg la waaw. allah mu jeex tàkk allah kon génn na génn goo xamante ne itam andi na ci coow man altine ci guddi rek bi ñu ciy def njàngat fii jot nañ cee waxtaan waxtaan wu xóot woo xam ne andi woon na tuuti ay kii sax. ci euh, façon génnin wi nga xam ne moom la génn nga xamante ne grâce moom daa bokkut ak amnistie ndax kon mhm. nation bi bu xasee ba am day mel ne mën na koo topp ci avenir politique am mhm. loolu nag xam naa yeneen jéego la yoo xam ne xalifa moom jamono ji oustaz li nekk a yiteem daa mel ne mooy wër nit ñi jàpp ne ñi ngi ko doon ñaanal ak ñi jàpp ne ñi ngi ko doon métti lu duggam googu di leen di leen nemmeeku ji nooy jàngate loolu tey dégg naa démb mu def message boo xam ne bii dugg na ma lool mhm. mu ne lan li ñuy tuddee gëm gëm mooy lu am solo mooy nit bum jaay gëmam bum fooye gëmam bum yàq gëmam loolu lu am solo la la ca tege mooy bu leen jàppi xalifa seen baay du seen baay dafa am lu ma gëm ñu bokk ko gëm buñ ko bokkee gëm rek gëm-gëm googu dana am lu mu indi waaw nan joxante ko te gëm benn affaire rek. Mhm. su nga loolu sëñ Mbàkke. Mhm. aqida lu am solo la ci nit. Mhm. gëm-gëm. la lu am solo la ci nit. lu am solo la ci nit. la message sam boobu am na solo lool. moo tax léegi comme génn na foog mu dem ci gaañ yi. joxe message boobu. jox ko xale yi jox ko ñi nga xam ne ñoom lay àndal. ndax gëm-gëm mooy yóbbu nit fu mën a dem nag. ku ko amul mën ngaa tëdd nelaw doo dem fenn. shukran tubarkalla am na solo oustaz jërëjëf ci taxawaay boobu loolu lépp nag li wane jàmm rek la mën a indi ci réew mi yàlla na doon jàmmi réew mi amiin ndax damay wax ne tolloon nañ fi jamono ay bis bu jot nga dégg ñuy manifester ne nañ bàyyi xalifa waaw an jot nga dégg ñuy manifester ne Ablaye Wade digganteem ak nangam nangam yu bëree bëri am xay na yii mën naa tax loolu dal tuuti incha allah incha allah yàlla na gën a yokku lépp loo xamante ne ñu ngi ko def ñu sóoraale ci njariñu réew mi amiin amiin léeg-léeg nag man bu ñëwee diw daa luubal alal li réew ñu xëy suba ne jéggal nañ ko hmm. wala ñu xëy suba ne baal nañ ko ko te ca biir foofa ca kaso ba ñi baalee am na fa ñu fa nekk ñoo xam ne xëy na ñoom ginaar ak ñaari junni ñetti junni wala réer wala ay njuumtee leen fa indi mhm. waaye nag dañ leen di fàtte ndax ñàkk fiiw gi wala àdduna bindoo noonu waaw ñii tam finance suñu mbàkk yi mhm. def nii buñ la buñ la gracier mhm. du tax nag lala la waroon ci wàllu fay nga fay maanaam wàccu la. déedéet. dañ naa laa léegi kat amel nga ñu nangami million. ameel nga ñu nangami milliard. ak genn wàll wal nangam. loolu moom mi ngi fi tëdd ba léegi. waaw génn gi nag naana bu ñu la gracier noonu lay deme waaw waaye tubaab tam noonu lay def. bu ñu la amnistie nag mooy li lépp lañ boole bàyyi la ko. waaw. dëgg la sa ginnaaw bëndëng macha mhm. allah am na solo jërëjëf oustaz jërëjëf ci génn googu ak njàngat yi nga xam ne def nañ ko ci yëpp mhm. xam naa réew mi de moom daa xaw a doy waar oustaz ndax léeg-léeg da ngay dégg ñu ne ña ngay sàcc xale yi mhm. eh, loolu nekk aw phénomène boo xamante ne day yaatu lool ba ñëpp dar gimiñ waaye nag fan yi moom li ñu dégg mooy rey nañ ay xale ca dëkk sàngam rey nañ ñaari xale rey nañ ñetti xale lan moo waral loolu oustaz suñ mbàkke hmm. ma waxati la ko. waaw ñëw ci réewum jàmbur. Mhm. dañ laa war a laaj yaay kan. Mhm. benn. Mhm. laaj la loo fi wut. laaj la kañ ngay ñibbi. dëgg la. su fekkee ne li gu am. ñu ne benn Sénégal ak ñetti étranger. ñun daaw ñu rendi ganaar. déedéet walaay yombuñu woon. ku dem Salif Sow mi mënut a rendi ganaar. yombuñu woon de da ngay ku ne naan damaa néeg a rendi. waaw. léegi nag ku koo xam ne mënoo rendi ganaar dem ba mën a tiim nit la waxuma la nit nga mën a tiim bébé hmm. koo xam ne defut waxut bu lay saaga sax saaga du leer hmm. nga ne ko deq rendi la ilaha illallah ko deq rendi xale nga xam ne moom xale dañ daan wax xale moom moominum yàlla la na <laughs> nga ne ko deq rendi xamul dara benn da bëgg ci dara jë pour yët ko nit laa ilaaha waaw sacrifice ak njabar rek mhm. mhm. da bëgg ci dara ji bu ko nit mhm. ñu la dama indi xale boo xam ne bii xamagul àdduna nga dem bu bëgg ko indi penc mii ma waxaat ko dañu parewul pour jëli fi ak rey pareeguñ ko ku rey moom ñu rey la dong moo fi jël ak rey loolu la gars yi bañ a dégg de. waaw mais moo tax moo tax du fi ñëw waaye loolu moom boo ko ñu ne la. 2004 euh, ba léegi ñu ngi koy coow 2004 ba léegi ñaata at la. Mm-hmm. bari na kay. ba léegi ñu ngi koy coow. Mm-hmm. sunu borom ci boppam moo wax ne loolu dong moo fi mu la jëlee ak rey. Mm-hmm. ngi kay benn dañ naan yàlla gëmuñu la ci loolu. waaw droit de l'homme lañ gëm. te dem. bàyyi nag wàcce kaamil bi njàngum kaamil bi. <laughs> ndeysaan loolu de. waaw moom de dañoo bëgg woon ginnaaw li mu tëral ba noppi te fu ñu jaaxlee naan moom la. rek waaw te moom rëddal yoon woowu bu ñu jaaree lépp réglé wu. Mbàkke waaw oustaz. biig dafay yebal ngelaw loo xam ni. Mhm. bu ko fi yebalaatoon ñaari yoon. Mhm. léegi tey ñëpp na cocc. maanaam mhm. ngelaw li yebal biig. ngelawul biig li lan la jotee suñ comportement yi. Ah. <laughs> dafa am luy tax yàlla di yeble ngelaw ak yooyu. Ah, alam alam taraw anum yuftanuna fi kulli aamin. marratan aw marratayn ah. <laughs> yàlla nee na mu jot ma kobos leen benn yoon. waaw léeg-léeg ma kobos leen deux fois. deux fois. Hmm. nga xam gëstu leen ma nag. nga xam ne ngelaw yeeg yenn kirif yeeg yenn jafe-jafe ay kobas la. y a quelque chose. ndax bëgg ñu tourné ne ko. <laughs> suñu école yi ubbi. waaw te mënuñoo jàng. waaw. am na ci école bu ñu la ko wane sa yaram day daw. dëgg la école yenn yaa ngi biir ndox mi yenn yi ñax maa nga fa yenn yenn yi. ah man de ci ndox bi dañoo ŋacc ba nga xam ne nag noppaloo ci des. waaw borom sóobaat ci lu toll loolu maa mu ëpp ko. dëgg la de toog di leen xaar. dëgg la de. buñ nga caatee mën na koo defaat. sañ na ko de. waaw te ndox mbàkke ndox xéwal la. bu ñëwee indi fitna yaa quelque chose. loolu rek la de. ñun nag suñuy réew daa mel ne ndox moom xéewal la waaye ñun fitna lay doon ci ñun bu tawee. ah très ndax Sénégal néew na mu nga dégg mu taw te yenn kii amul damaa xamul ñun ñoo waajalut suñu bopp. loolu la wala lan moo xew. yi ñuy yi ñuy def nii ci travaux ci dëkk bi ni fi nekk nii. Hmm. xanaa lu daa war nekk xéewal. Mm-hmm. mu ñëw nekk fitna ci suñ kaw waaw dëkk bi oustaz tacc gim ne tacc maa ngi koy wax léegi suñ mbokk mi Jóob bi mu fi ñëwee léegi waaw euh, Maxtaar Jóob Maxtaar Jóob kaaraange yoon nekk waa ko waaw sëñ Maxtaar embouteillage bi moom jaaxalu la réew mi daa mel ne jub dem fenn kenn mënatu ko rawat na ci capital bi te loolu xéewal na doon waaw léegi nag mu ñëw nekk nattu suñ kaw doy na waar de mënoo xëy léegi dem jëndi saako ciment. Mhm. dellu siwaat moom kay xam naa Dakar ay jakartaa Jakarta danañ fi mujj ñëw te nag bu ñëwee nag fitna gën a tey yokk ndax da nga fi dégg accident bu rut boobu jinne waaye oto yi ñoom mënatuñoo dem mënatuñoo dem oto moom mënatuta dem fenn mhm. loolu loolu loolu sëñ Mbàkke mhm. fitna boo xëyee li ngay lakk ci gasoil ndax ngóor góor góor góor góor ci ci ci embouteillage bi dëgg la de te la ngay doxee du sotti wallaay wax nga dëgg wallaay wallaay loolu rek la de. Mm-hmm. da ngay dox dox du sotti. Mm-hmm. yàlla na yàlla dimbali. amiin yaa rabbal foofu sax laay eh, rataloo rek oustaz ñëw ci ubbite école yooyu nga wax léegi. Mm-hmm. Eh, ni nga ko waxee ñu ngi wax léegi naan ubbi tey jàng tey. lool bu koy dégg sax ay ree daf may jàpp. ndax damaa xam ne mu jóge woon. waaw ñu delloo ko fa ndax itam xam naa dañ koy def mu nekk ab slogan boo xam ne ak njàmbaar la ta loolu mooy li normal. école tijji na moom tàmbulee jàng dong nga ci war. waaw waaye daa ñun ñetti weer yi xale yi di vacances ñu war a saytu école yi ba mu ubbi tegu ci yoon ñoom it daa mel ne dañoo demandoo vacances ak xale yi te xanaa dañoo waroon bu ñu nee vacances jot na ba école tëj na léegi nag ñu profité ci école bu ñu war a tabax ñu tabax ko école bu war a defar ñu defar ko école bu ne ci commune ñu war a bay ñax ma ñu bay ko nettoyé ko waajal ko ba nga xamante ne waajtaay bi day ubbi ubbi day jiitu ubbite gi waaye bàyyi ba ubbi école bi door a tàmbalee waajal ah, ñun doo xam lan moo ñu dal doo xam réew lañ yor doo xam ay ay affaire xuusmaa ñàpp la wala lan sànq laa koy wax jenn xama comme ànduloon ci oto bi def na alaaj alaaj ñang la mm-hmm. ma ne ko ñun ngay romb fenn gars yi di ko defar. Mhm. nga romb fa juróom-ñetti weer. juróom-ñetti weer waaw juróom weer ci ndiggante soo xam ne mu mutul mu mutulub mutulub kilomètre. Mhm. juróom-ñetti weer juróom-ñetti weer. lu waral loolu laa xamul man. lu waral loolu laa xamul. mooy ñun daal yàkkee gu soos. dëgg la parce que tey jii fi ne boo doon dem tey Jurbel nga jël autoroute Ila Touba bi ba wàcc. waaw yoon wi lay jëlee ca autoroute ba yóbbu la ca biir dëkk ba. ba nga ni ci sànce la nekk. na te bi ñu inauguré autoroute beeg léegi léegi mu def at. xanaa diggante boobu nag eh, ki jaar ci autoroute bi fay ba wàcc war nañ ko war a wutal aw yoon wu jaar dem même bu doon ab autoroute sax nag liggéey ab liggéey lu ma lu ma tudd treize kilomètres ñu tey boo jógee boo jógee pont Malick euh, Malick si bii hmm. dugg yaraax mën nga fa am ñaari fan bala ñett mbalu ko jege. Mhm. lépp ma ngi ne tecc. Mhm. Mhm. yeneen réew yi man damay gis. Salif bi xam na ci dara. waaw yi ñaari équipe la ñu nekk. ñu dañuy xëy huit heures. di liggéey ba treize heures. dëgg la de fi ñu wàccee. benn équipe bi jël. foofu nga leen ràmm ñuy liggéey. waaw du am fukki fan ak juróom. Mhm. ñu ubbi ko ku ne dem. dëgg la oh, kon ndax du sànce yi ñi sumbandoo moo bari. wala day am dañ koy jox entreprise boo xam ne dafa amut effectif bu doy. wala ki gañe marché bi ci boppam moo du jël personnel bu doy ci wàllu liggéey boobu di ko ñab-ñabal wala lan moo ah, xew. Ah, lépp a ci nag. <laughs> Mbacke. Hmm. li nga wax lépp a ci. parce que itam gañe marché bu toll ne ab tali wala benn sànce boo war a tabax. Euh, par exemple quarante personnes waroon caa liggéey nga jël cinq personnes liggéey ba day gën a yeex. jeex na lépp a ngi ci nag. Mhm. léppuñ ci mm-hmm. kopp-koppal baa ci mm-hmm. sakkanal baa ngi ci mm-hmm. néew doole gaa ngi ci ñàkk man gaa ci lépp a ngi ci bi ndeysaan tey <laughs> léegi su fekkee école dafa tëj mm. xale yi war noppalu ñetti weer mm. juillet août septembre ñetti weer ñetti weer yooyu ana waa école ba waaw <laughs> surtout ah taabal baa yi dem xanaa mbàkk mën nañ ko defaraat fenêtre yi daj ko ram mën nañ ko defaraat dëgg dëgg peron ya nga xam dañoo toj xanaa mën nañ koo perongaat dëgg la lu dëgg mm-hmm. toilette de xanaa mën nañ ko defaraat déedéet mu la ñu toog rek ba ñu ni tey la xale yi di ñëw ci bis bi mm-hmm. ci bis bi mm-hmm. xale yi dugg di bale classe yi bu ñu fekkee ndox nag àdduna tukki ñun loolu ñun ñun ci loolu la dox. yàlla na ñu yàlla yërëm. amiin yaa rabbal aalamiin. amiin ak metti. amiin metti na lool xam naa xaw ma kañ lañ koy yëg ba saafara ko waaye daa mel ne awaguñ yoon wa ndax lu bari dañuy bàyyi muy jàll rek. accident yi dégg nga ko fi nekk ni waaw accident yi moom dañ koo miis ba léegi. sax jàpp nañ ne moo day mujj ak day mel ne moo normal daal. waaw da ngay dégg accident mais du la déranger. jeex na accident am na maanaam trois morts garaaw. jeex na barki dem lañ fi ne dañuy fi la xar jaar ah. salaamaaleykum. ñun kay oustaz am nañ problème waa loolu yow lan moo ci sa waa conseil économique nag man ka damaa xamul lu may waxati yéen lu ngeen ci xam. ñun liñ. <laughs> wala yéen waxu leen ci dara. ah kay. Ah. def nañ ci waxtaan. ministre yi sax ku ci ne woo nañ la. Hmm. waaye fi ne da ngay defa def ba mu baax nga teg. Hmm. ci trois la ñu teg. dégg naa bitim réew nee na ñoom du ñu def du ñu def séminaire. Hmm. du ñu def ay yooyu. déedéet di ci day ñëw Sénégal rek. jënd benn journal wala benn nangam ak nangam gis la ca nekk ñu dem defal mu jaar ci yoon. ndax day fekk ñun def nañ ko ba noppi. ñun moom suñu théorie moo baax. daal pratique bi moo def théorie rek. mu di hmm. suñu pratique yàlla nu yàlla yërëm. est-ce que amiin xaw ma nag kañ la fi jóg waaye foo ko takk weesu na ko. ak a métti. Hmm, hmm. yàlla nu yàlla rek <laughs> kenn mësu koo gis. yàlla nu yàlla yërëm am na solo loolu jërëjëf damay jeexale xibaaru daara ji waaw euh, a a màggalu Touba. loolu itam waajtaay la woo xamante ne xam naa ne ñu baree bari ñu ngi koy waajal ci réew mi di ko waajal bitim réew euh, dafa jege nag xam naa ak ubbital masaalikul jinaan gi looloo tax tax mu xaw a am ak àttandiku tuuti mm-hmm. ak itam xam nga ne at mee ñu génn ba weeru safar feeñee rek ci lañ tàmbali dëkk bi ko romb ma ngay safar mhm. waaye ren bi ñi def appel beek woote gi daa mel ni seriñ Serigne Mountakha joxe na ci tuuti ay eh, leeral ak mhm. bëgg itam ñu néggandiku tuuti rek ba ca 18 safar ga bu ko mhm. defee ñu ànd ñun ñëpp dem waajali ko man njàngan ngay def ci loolu ah jërëjëf xanaa rek euh, ñaan suñu borom yóbbuñ ci ak jàmm amin weesu ko Euh, xam naa yaa ngi yaakaar sax Sud FM incha bu subaa waaw dana 18 safar. Mm, waaw suba mooy mooy safaru Sud FM. safar béy bi <laughs> njiital notre directeur Baye Omar. Mm-hmm. incha allah. Mm-hmm. ndax ab bés la bopp. Mm-hmm. bu am solo la. dëgg la. bés la bopp sëriñ bi nee na. ñëw leen sant ma yàlla. nu ànd nu ñëpp sant ko. dëgg la. ndaxte kat lu baree bare dañ ko ci am. maa ngi dégg maam Moussa Kanaan duggoon ko nag dem gi walaf nasraanu te kon billaahi ñëpp dem niiraanu wax ju xóot waaw wax ju xóot parce que colonialiste yi ay nasaraan lañ ñu bëggoon a def maam génnee ñu ci diine ji yóbbu ñu ci yeneen diine jeex na parce que nasaraan bi du du nekkut nekkul doonu tubaab mais mooy dem ci jeneen diine jeex na mu ne duggoon ko nag dem gii hmm. wolof nasraanu hmm. te kon billaahi ñëpp dem niiraanu ñëpp dem niiraanu laa sàkk hmm. te réew yi nga xam ne amuñu sunu mag ñi ah loo ci gis réew yi ñu digalool ak a ñoo tubaabe ñoom amuñu ay màggal ak i gàmmoom loolu loolu rekk la ñu ngi ci moo tax su jegesee ñëpp tabarkaal di ko waajal fas yéenee dem mm-hmm. fekke ji ko mm-hmm. santale ko yàlla mm-hmm. jàng alquran berndal gal ña fay ñëw jàng xasaay du dëgg déglu xalifa ba mu joxe ndénkaan ku ne dellu sa kër am na solo lool. tubaarkàlla jërëjëf am na solo yàlla na càggate weesu ko. Mm, tubaarkàlla amiin danañ ko gën yaatal. ci jotaay yi nekk suñ kanam dañ ko doon tudd ba ñu yëg ko rek. Mm-hmm. di wooy itam auditeurs yi Sud FM yëpp ci safaru euh, Sud FM seen rajo. incha allah ndax itam noonu lañ ko defee woon daaw te noonu lañ ko fas yéenee defee ren. Mm-hmm. bu ñu xëyee wàccee kaamil. Mm-hmm. yendu fee toog di waxtaanee yàlla ak yonent bi njàngale mag ñi ba ngoon jot. ndeysaan incha allah yàlla incha allah yóbbu te amiin yaa rabbal alamin jërëjëf oustaz xaaj bu njëkk bi di xaaju xibaaru daara ji nes tuuti rek ma ñëw ci laaj yi mbokk yi bind ci email bi di albi wilaayatu arobas yahoo point fr ay déglu ma wax la la waral màggal ga nga xam ne Seex Bàmba réyal demam nga taarix ba ama jëy sa seen mooy at ma moo di lelum sëriñ Basiirum dég ma waaw waaw kon xaj Mbàkke xam na loolu tam daañu ci dikkaat ci kanam incha allah ci Moussa imaam Moussa Gueye ma la ca ndar jërëjëf waaye ci mbindum maam Moussa Ka macha allah jërëjëf jërëjëf mbokk yi ñuy bind ci email bi di al bidayatu arobas yahoo point fr mhm. ñoo ngi leen fay xaar seen laaj man ngeen ko fay sërxal danañ koy jukki benn par benn ci jotaay bi di leen ko jéem a tontu incha allah mhm. mbokk mi ñu njëkk a jox ab laajam mi ngi tudd Mansour laam nekk fële ci Argentine gannaaw ba mu nuyoo indi ay siyaare indi na fi ñaari laaj nee na laajam bu njëkk bi dafa bëggoon a xam ndax ki nga xam ne dafa fekk góor ak jigéen ñuy jote nee na daal mu génn wax ko ndax moom daf leen a tuumaal bañ ko naan dafa tuumaal as gor wala gannaaw fekkee ne leen ba gis ko rek loola nekkatu tuumaal as gor wala waaye la muy wax dëgg la bismillahi rahmaani rahim subhanaka la ilma lana ma allamtana innaka anta al alim mbàkke bu nit gisee loolu hmm. génn wax ko hmm. lislaam da koy dóor moom moom mi ko wax moom mi ko wax même bu dee da koo gis même bu dee da koo gis seetal loolu rek juróom ñett fukki at la koy dóor hmm. ki def lee téeméer la koy door dóor waaye comme da koo wax ñi ko def kenn du leen dóor moom mi ko xam daañ ko dóor juróom ñett fukk suñu doon deux de personnes ba tey ñoom ñaar ñëpp ku ci ne daan am juróom ñett fukk bu ñu doon trois personnes. trois personnes yëpp ku ci nekk da nga am juróom-ñetti fukk. allahu akbar. kon ci kon ci jamonoy partagé ji ñu nekk nga xam ne oustaz nit ñaa ngi partagé ay audio naan euh, xam ci loolu lañ nekk léegi. bu njëkk bu wax yi moom da ngay dem waxi ko saaliwu këram wala garab ga ngay naan ataaya waaye léegi jërul ngay génn sa néeg. di partagé rek. kuñ ci dóoru fi daan dóoru fële. mooy ñiy partagé kat yi. maa la ko wax de. <laughs> buñ ci dóor fii daal hmm. la dóor fële billaahi waaw waaw oustaz waxal ak ñi nga xam ne ñoom dañuy mel ne ñoom doo nga am connexion wala audio bi agsi ci ñoom ñoom rek ñoo ko am parce que yéenee yónnee ñëpp man sax mooy lan mooy loo xam ne daaw lañ ko doon partagé waaw am kuy door a am whatsapp am tey la ko tey waaw ah, xam nga ni kii daa tardé waaye oustaz kii moo tardé waaye <laughs> dafa am ñoom di bëggu partagé rek yàlla xam na ko yor sa whatsapp jël partagé partagé da koo jar. boo xam ne. Mm, xewi na <laughs> da ciy door a jot. <laughs> da ciy door a yàlla. <laughs> da ciy door a jot cam. très def lay jàpp. bilaay mu partage la ko nu soog a ndeysaan. jàpp ne moo rey gaynde gi. léeg-léeg nga bañ koo nga bañ koo wuyu mu lay bind naan la liir nga sama message. te tontu woo maag. yàlla na yàlla bu man nga maa tontoog te yow loo koy tontu. xamul ne lim def lu weesu la. macha allah yal na yàlla yërëm. am na solo de jërëjëf amiin yaa rabbal aalamiin bu solo boobu jërëjëf. bu tax lislaam dafa bañ. waaw dafa bañ koy wax ci nit. Mm-hmm. mbaa nga di ko jéem a weer. Mm-hmm. mbaa nga di ko jéem a wog jaane. Mm-hmm. mbaa nga jéem yàq ab der mi yëpp def ko bëggul. lu am solo la dëgg la wa sukkuraan jërëjëf jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo loolu teg na ci ñaareelu laajam boo xam ne dafa dem ca surat al baqara cinquante 259 la wax ay jaa ngi tàmbulee ci aw kalladi marra ala qaryatin wa iya xaawiyatun ala urusiha xaala anna yuhyi haatihi llahu baada mawtiha hmm. ba aaya ja jeex ngoog hmm. dafa amoon kuñ daan wax euh, Uzeyr hmm. Uzeyr moo doon dox ba fekk dëkk boo xam ne dafa mel ni calaaga dëkk bu nekk fële ca ca càlle dëkk ko ñëpp tuxu dëkk ba gent dëkk ba gent ba mu ba mu rombee nag mm. mu daal ni waaw lii moom yàlla mën na koo dekkala waay <laughs> xelam nag la ko wax mm-hmm. lii yàlla mën na koo dekkala mm-hmm. sunu borom rey ko fa mu tëdd fa téeméeri at mm-hmm. bi mu tëddee téeméeri at nag la lañ na ko pëkk-pëkk mu jóg bi mu jógee sunu borom wan ko ni mu dekkale mbaamam mi mu yoroon mm-hmm. ba noppi wax ne ko sa sa ñam mi nga yóbbuwoon nag mm-hmm. foroxut ënnut mm-hmm. waaw sa ñam mi nga yóbbuwoon foroxut ënnut loolu kon sunu nga baa ma nga fa ma jàngale ne dekki am na Useyru moom ne kere ba mu dekkee nit ñu ne ci penc ma kii doomi yàlla mun ibn Allah sunu borom subhaanallah nit ku dee dekki rek lu ci indi boobu relation kooku mooy ka nga xam ne marra ala xaritin wa yaqaawitin mm. ala rusha wa mm. shukran ci laaj bu am solo bi masha allah jërëjëf oustaz ci tontu lu am solo lu jotale loolu ndekete kon siki sàkk ci ndax yàlla day dekkal wala du dekkal ëpp naa def ëpp naa def mm. waaw ëpp naa def day dekkal nit ñi du ko dee rek affaire bi jeex na déedéet dana dekk dana dekkal nit ñi ni muy dekkale maangoog gerteeg tàndarmaag sub mm-hmm. nga xam lu ci dee. Hmm. boo ko jiyee mu dekkiwaat. Hmm. indil lam lool lam la indi lool. Hmm. noonu la koy defee ci nit ñi it. que wa shukran macha allah jërëjëf Oustaz jërëjëf ci tontu lu am solo lool lool moo nekkoon laajam boobu di man Mansour ñu ngi koy nuyu baax a baax. mbokk mi ci topp mi ngi tudd Ahmadou Fall Ahmad nee na lan mooy àtteb ki nga xamante ne daal day jënd euh, ci barab boo xamante ne dañ fay naane sàngara maanaam lu mel ne baar. ndax boo demee bitim réew. Euh, dëkk ba saaliwu ñoom jóge da nga naan bu may naan café da ngay dem ca baar ba wala fenn fa nga koy naane nag mën naa am ñu fay jaay am ñoll ak yeneen ak yeneen ndax loolu dagan na bu boobaa bu pexe amee mhm. demal jëndi fa nga xam ne amu ko mhm. bu pexe amut nag duggal fa koy jaay ti jënd fa yow la nga fa soxla mhm. lu rek la wa shukran ci laaj boobu ndax ittaqulaa mastataatum hmm. moo ñu ciy dimbali dëgg la wa shukran macha allah loolu nekkoon ab laajam ñu ngi koy jaajëfal bu baax mbokk mi ci topp mi ngi tudd Ahmed Fall euh, di wootee fële ca Ziguinchor hmm. moom nee na day laaj ñii nag la ko bindee nee na ndax ni murid yi di nuyoowe hmm. di sujjóot ndax loolu lislaam da koo tere wala déet euh, lislaam terewul ku jël sa gémmiñ dëpp ci sa loxob sëriñ lislaam terewul ko jël sa gémmiñ dëpp ci loxob kuñ am yaakaar ci moom ak baax ak barke mhm. lislaam terewu ko mhm. bañ ko laajee Sëriñ Shuaybu radiyallaahu taala anhu mhm. daf caa tontu lu am solo daf ne lool du sujjóot ñu ne ko xam ah, mu ne sujjóot mooy dëpp sab jë sa bakkan sa ñaari cat loxo sa sa ñaari óom ak sa ñaari cat tànk mu ne loolu looy sujjóot mu ne loolu nag kenn du ko defal kenn ko dul yàlla amaa nuyoo dëpp sa gémmiñ ci loxol ki nga xam ne moom ngay nuyu mm-hmm. nee na loolu moom dara ni ko ci mm-hmm. mu ne nag bu fekkee ki nga koy defal mm-hmm. boo ko deful day mer mu ne ëpp naa def foofu la affaire bi nekk waaw suñ sooy waaw di mer naan waa ji bu ma nuyoo du ma si jootal ak bi ma nuyoo sumbiwul mbaxanaam ne yooyu mat daal du seetlu yooyu waaw nit ku mat dëgg day day du seetlu nit ñee koy seetlu waaye yow doo ko seetlu waaye toog di xëcc dara ja rek ku la nuyu bu si jootul nga mer bu sumbiwul mbaxana bi nga mer lu mu wax mu ne daf maa cof moom amatuk taalibe eh, fekk na doo ak si foofu waaw koy yow daal nekkal ci li nga nekk rek jeex na jërëjëf Oustaz ñu ngi lay jaajëful baax ci tontu li mm-hmm. eh, beneen bi mu ci teg itam moom eh, mbokk mi di sëñ Ahmadou Fall mm-hmm. nee na ndax yàlla ak diw maanaam nit di wax daal naan ginnaaw yàlla ak diw. Mm-hmm. wala yu façon waxin yooyu muy laaj ndax loolu dafa araam wala déet. Euh, bu summa duggee rek araamatut. Mm-hmm. Mm-hmm. bu wax duggee nag araam na. mooy yàlla ak diw. boobu dafa xaraam. maanaam tey su fekkoon ne. Mm. damay dem Mbàkke. Mm. nga ne ma kañ ngay dem. Mm. ma ne la bu neexee yàlla. te. neex la. te neex la ji maa ngi ci jublu. waaw ma mayee paas. Mm-hmm. mbaa nga yóbbaale ma sa oto. kon amul problème. Mm-hmm. waaw bu dee lu mel ni ma si ak mm-hmm. iraado nag. su boobaa boo bu neexee yàlla ak yow. yonent bi ne déet bu lox loolu. dindil waaw gi. teg fa summa. dogal bi moom yàlla dong nga koy bàyyi. dogal bi yàlla dong nga koy bàyyi. waaw jàppandal geeg yeneen yi def. yi fi maye paas geeg yóbbaale gi nag. Mhm. mën nga ko jox nit. macha allah waaw. njàngale mu am solo am foofu. waaw waaw léeg ñu nit sukkandiku ci di génnee nit ñi ci diine ci yu baree bari. te ñàkk euh, leerlu rek la ne waa ji jubluwu ci loolu. déedéet waa ji jubluwu ci loolu. Mhm. bu neexee yàlla ak. Mhm. waa ji li mu si jublu mooy. boo mayee paas baa nga yóbbaale ma. waaw dëgg la de la taali boo xam suñu Mansour. waaw kañ ngay ñibbi mu ne ah, ah, ma yeewi laam ma bàyyi ba suba mu ne ko loo ci man def daal war nga cee gaaw ndax dama ci laa bëgg a paas ci laa bëgg a paas waaw <laughs> <laughs> mu jeex tàkk mooy daal béy woon nga gaaw béyoon nga gaaw rek am na solo jërëjëf oustaz ñu ngi lay jaajëfal ci tontu lu am solo loolu beneen bi ci des nee na nan la lislaam gisee une minute de silence da koo tere ah amul solo nekkul dara ci lislaam mbaa mbaa ki une minute de silence mooy minute boo xam ne ñëpp a taxaw kenn du wax dara hmm. balaa càkk ñu xul wala une minute de silence moom. Mhm. waaw lislaam moom bëgg ko xamu ko. Mhm. na ko teg fële. waaw. am na solo jërëjëf oustaz Ahmadou Fall euh, Ziguinchor laajam bi mu ci topp te mooy ñeenteelu laajam mhm. euh, euh, nee na ci yéen oustaz yi la jëm noonu la ko bindee laaj bi nag ci yéen oustaz yi la jëm ñu ah, mu ne mooy cerveau vocal bi waaw na daal damaa jàpp ne riba moom moo ko wax nag kon nee na dafa jàpp ne riba ndax nit day dugal crédit cinq mille wala dix mille nee na dugg serveur bi naan ko xaaral tuuti ñu jël la xaaral tuuti ñu jël la xaaral tuuti ñu jël la nee na ba mu ne pëng nee na daal muy laaj ndax loolu moom riba la wala déet waaw léegi bu mu ko jëmee ci ñun ah wax dëgg na ko jëmee ci technicien yi rajo yi <laughs> ñoom Aliou Badara Socé <laughs> waaw am déet mhm. waaye ñun kay bu ko jëmee ci ñun wax dëgg yàlla ndax serveur de câble du suñu serveur mhm. <laughs> Ahmed Fall mhm. serveur bi du suñu serveur du suñu yëf ndeysaan yëf yi rajo bi la ndeysaan lu dëgg léegi rajo bi day jaay benn benn marchandise Mbàkke mhm. rajo bi day jaay benn marchandise mhm. mu ñuy wax dugg ci rajo bi mhm. wax adduna sipp dégg la loolu rajo bi jaay léegi nag boo jëndee sa crédit dugal ko ci te dugguloo wala nga dugal ko ci te dugg loola lam la jaay dala koy jaral bu la ko jarul bul woote du ribaa de bu la ko jarul bul woote dafa am marchandise mu jaay rek waaw loolu rek mooy serveur te nag Mbàkke gis nga ndagar walekat yi. waaw taasukat yi. Hmm. fecckat yi waykat yi. Hmm. du musuma dégg ko kaas. déedéet ñoom seen émission kenn du ko kaas. ñoom seen émission ñun suñu bës rek parce que ñun suñu bës dañuy jàpp ne gratuit la war doon. gars yi dañuy woote nice wax maye di kaas nangam nangam. rek. Hmm. auditeurs yi si liggéey yëpp nangu nañ mu ubbi wo duñ kaas ak yu Nicolas yi. moo taxit fi nekk nii kuy liggéey ca yooyee. mën nga am xaalis mën nga am lu nekk. <laughs> waaye nun ci yu nekk ni moom mhm. yàlla nunu yàlla yërëm rek te ngeen yërëm nu yéen it waaye daal serveur bi moom du mbirum ustaas yi mhm. mbirum technicien yi laak mbirum rajo yi ñooy jaay seen marchandise jaar la ko foofee ku ca wootee tabarkàlla euh, la cay ruusee mhm. euh, jëm ca fa mu jëm. macha allah wa <laughs> na solo Oustaz jërëjëf ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu mbokk mu ci topp te mooy suñ ñeenteelu aji bind. ci ñi bind ci email bi di albidayatu arobas yahoo point fr. Mhm. mooy al Ousseynou Dieye. al Ousseynou Dieye ma nga fële ca Canada. Mhm. moom nee na daal li mu bëgg a xam mooy koo xam ne dafa am ay action maanaam ci ab banque wala euh, lu mel ne kër. wala lu mel ne ab ab société. mu jënd fa ay action ndax action yooyu daf koy génneel asaka ak nan la koy génnee. bu fekkee fa muy action ñuy jëfandikoo riba la. Mm-hmm. loola dëgganut. Mm-hmm. bu fekkee ñuy jaay aw ñoll la. Mm-hmm. loolu dëgganut. bu fekkee duñ jaay yooye nag action ab xaalis la doon ci moom. kon su asaka jotee da koy booleeg asaka ci génn leen ñoom ñëpp. wallahu taala alam wa shukran. jërëjëf Oustaz ñu ngi koy jaajëfal mbokk mi ci topp nee na ginnaaw bi mu la nuyoo jaajëfal ci jotaay bi. mi ngi rafetlu euh, tontu yi mi ngi egsi ci laaj yi mu njëkkoon a bind mhm. mu daal di bindaat beneen nee na moom daal dafa bàyyi bañ ñu suba la tabaski mhm. yorut woon lu dul deux cent cinquante mille bëgg cee jëndum xar mu far réer mhm. nee na mu wër koo wër a wër ba sonn gisu ko far laataa ñuy tabaski mu far for deux cent mille nee na muy laaj deux cent mille yi mu for da koy far jënde am xar wala day wëri borom <laughs> ah ba ko way jur ñoom jiili mbay fore day mm. ci mbàkke bawal di wutim xar far for fa cent mille mm. ndeysaan jël saamile ba Louga. ndeysaan maam Cheikh Mbaye. waaw. <laughs> mu door ne ah, mm. man de li def jëf. taaw xarja ku mi lay nooru bamba jogo ku la sant nooru bamba jaar nooni yàlla jaaran jërëjëf jëf ci ànd beeg si defem seen rajo tabarakallahu tënkum xibaar yaa ngi noonu ci tubaab mi ngi noonu ci wolof Haji Mbàkke kon lan moo ci tege jërëjëf oustaz wàllu auditeurs yi moo ci tege ginnaaw bi ñu jaajëfalee équipe bu rédaction bi wàllu auditeurs yi ci 88 628 98 98 bu dee ñu ne ci biir réew mi ñu nekk ci bitim réew ñooy woote ci 33 841 22 33 noobal baa nga sa baxee ca ngeer ba ñu roowul ak civil keroog payoor ba waman yaajir fi sabilillaay moo naa ko yóbbu foofa doone laay déglu ma wax la la waral màggal nga xam ne Seex Bàmba réyal demam nga taarix ba ama jëy sa seen mooy at ma moo di lelum sëriñ basiiru mbég ma nee na la yàlla defaloon kalima li daari defal ko ibrahima da yàlla buur ba farataal tabaski ak tam xarit may na ko gaay mbàkke waaw mbokk mi daal bëgg a bokk ñu dalal ko asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah man la Ismaïla Sarr maa ngi dëkk fii Wokam cité avion waaw kay Sarr naka waa Wokam a ngi sant yàlla bu baax. macha allah. maa ngi rafetlu émission bi. daal lu may laajte ci daara ji. waaw. man daal dafa am benn euh, saaru alxuraan boo xam ne daal. Mhm. dama gis daal euh, jullit yi euh, farluwuñ ci lool. soobuñ ci lool daal. Mhm. muy tabati yaddaa. waaw. du ma gis du ma fekk julli mukk ñu tari ko. waaw du fekk daal ay nit di ko waxtaane. waaw man daal saar woowu daal. ma bëggoon daal oustaz daal mu am lu ma ci leeral parce que man daal li ma koy dégg ñit di ko tudd bëriwul dara dara dara. d'accord. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. ñu ngi koy jaajëfal ci duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi al imaam Adama Diagne ma nga fële ca seew xaay di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy nuyu di nuyu waa seew xaay yëpp monsieur le maire ñu ngi koy nuyu. Mm-hmm. Euh, mbokk mi nee na oustaz tabat yaddaa daal daa mel ne gars yi de du seen copain comme ni nga doon waxee ne gars yi dañoo am copain. ci <laughs> lu muy dégg ñu koy tudd. walaay waaw fii de ñun xam nga xaj Moustapha gi moo daan wax ne ceddo gi daf noo bàyyeegut ceddo gi daf noo bàyyeegut ba tax mm-hmm. jàpp na ne tabati daa ko kenn du ko tari guddi mm-hmm. tabati daa kenn du ko def nangam nangam nangam mel ni alxuraan mm-hmm. euh, noonu la mel te gis nga tabati daa mbàkke li muy réglé moom sóortul fii ñoo ko niroole ñoo ko niroole ñoom ñaar kenn ku ci nekk day nekk lu xew ak lu jëm ci kanam rek tabati daa wax mooy ummu jamil dana dugg sawara moo jëkkëram mm-hmm. alamtara mooy duma naa ñeeroon ñay ya mm-hmm. mu jax mm-hmm. léegi nag ñun ci ci penc mi ñoo bëgg jàpp ni saar wi kenn du ko jàngu di kenn du ko jàng nag ah kay afa tu'minuuna bi ba'dil kitaab wa takfuruuna bi ba'd wallaay suñu borom ne lu tax ngeen bëgg a gëm ci alxuraan ji daara bëgg wa di la ci des kon nag tabaja daal di ñuy jàngee yeneen saar li ko war di jàng ci julli ak jum seen yëpp hmm. waaye su fekkee nu ceddu ga mooñu mooñ nag léegi tey ñu jël ay saar teg fële jël ay saar teg fii hmm. eh, ñii ñu def leen ay xarit ci dañuy def leen ay noonu hmm. wallahu taala alam wa ci tontu lu am solo li ñu ngi la ciy jaajëfal bu baax a baax 88 628 98 98 mi ni jot na ba tey ñaar fukki simili ak juróom ñaar gën a yey ci Bàmba doon ab si keroog la ñaan bur yàlla yoonu géej ngir nga liggéeyal Moustapha may géej ga ngir boobee wuur yaa ngi kiy xëccoog sëriñ si kàngam yi ak tubaab yi naa ko merci adduna ak laaxira far di ko gëroo ku nekk ne maa koy jël te naa sama goroo ba xaadimam jaxate naa ko irkan jengal te jublu buntuuri cey koon sax bamba naa laa ilaaha daaran wala ilaaha illallaahu man yàlla doy na ma te doyloo naa ko maa yi ndokum yàlla fa jàng naa ko man alal du tax ma jàng jàngal ma oon ndakoon doo jàng bilaahi taalaayi xanaa yow xalamoo laa tarka noo illa lazina salamu xaalooli irkan mooy jawaabi xaani bambaa ko tontoon wanta xaani keroog la Bàmba jumbanaa billaahi tay fasanaa alduna jibullaahi aqbalati dunyaa ilaya xablu wa biituha fa saala anni kablu wa baadoo anni ya at baradu walam amilyaali kawna daaru salaam wa baadoo li aqbalati wa inni aqbaltu barkalla asalaamaaleykum wa rahmatullah bisimilah kàddu gi xaw naa suufe yaaram. bisimilah. waaw da def casque wala. waaw kàddu gi de moo suufe lool ñoo ngi ciy jégg lu baax nag. bisimilah bisimilah. jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar. mu ko waa Touba. jàmm rek kay. tubaarikàlla. doon sàkku ñu yokkal ñu doole koy sàkkuwaat léegi nag ndax su ma juumul fii yow de li ngay wax it dégguñu ko bu baax suufee na lool yaaram allo allo allo waaw ah, ñu ngi koy jéglu baax baax oustaz ca lay wootee ak Touba xam naa foofa mi ngi jàmbat ba léegi rajo ba ak ñàkk leer gu mu fa ñàkk leer incha allah xam naa Alioune Badara Socé mu ngi koy dégg tabarakallahu ak Baye Omar euh, le directeur mbokk mu ngi tudd Soda Mbaye mu ngi fa ci Gibraltar di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy nuyu di nuyu waa yëpp 88 628 98 98 ñu dem lamte yaaya sëriñ si naaxis lañu bambay kaamil mbari yëpp suq lañu bambay kaawal man saqib zalika falu jarribi wa man jarib baabi taqrubi jaayante naag yàlla te dootul xàcc rijaal yi seede nañ ko masta saj loolaa tax euh, ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk mi asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Mbacke. waaw bisimilah. maa ngi ziar jërëjëf yal na yàlla nangu ziar. maa yaa ci jàmm. ñoo ngi ci jàmm bu baax a baax. alhamdulilah noo ngi rafetlu jotaay bi. jërëjëf jërëjëf. waxtaan yëpp am na solo. jërëjëf. noonu ngeen ko waxee rek amuñ dara luñ ci teg. dëgg la dëgg la. waaw di ñaanal suñu kilifa googu rek yàgg ci loolu te wér. amiin amiin yaa rabbal alamin. yeneen ci lislaam bi yëpp suñu borom matal ko. amiin yaa rabbal alamin. waaw sa xarit la. waaw kay Assane Samb. waaw Samb Samb jërëjëf Samb jërëjëf. di di yow dañ lay dégg bu baax a baax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf. di la kontaane di la jotali siyaare waa Kër Babou Ngoné. ñoo ngi leen di nuyu naka nawet bi. waaw nawet bi fi mu ne nii moom ñu ngi sori moom. Eh, naka sëb yi. waaw sëb yi moom ñor na. ñor na ñu ngi ñu ngi ñu ngi def nan la tudd ci tax. waaw ñu ngi def loolu. Eh, <laughs> yooyu noonu yi fi sàmbeen yooyu. waaw ñu ngi koy ñoom ñaar yooyu. <laughs> du ñàkk du ñàkk ne màggal gi moom buñ kiiwoon sax ma indi la ci de. nga ni ma ñebe ju tooy ma ñor. waaw ñebe ju tooy ji kay. Ah, loolu de baax na moom. <laughs> waaye ak jàmm baax maa jàmm yàlla nañ ko muurloo. amiin amiin amiin. bisimilah bisimilah macha allah fi mu woon tool yi na bu baax baax. jërëjëf yal na àgg ak jàmm te ñu muur loolu lépp amiin amiin amiin yaa rabbi. waaw dañu doon ziar ak rafetlu jotaay. jërëjëf Samb jërëjëf Assane Samb kër Baabu Ngóone ñu ngi koy nuyu bu baax a baax tey rafetlu duggam bu am. mbokk mi Moustapha Sall Mbour Sud FM. Mm-hmm. ñaanu ñun jotaay bi. jërëjëf moom it di ko ñaanal waajtaayam woowu mu nekk Oustaz yàlla mottali ko. <laughs> ndax xam nga booba léegi ci ak célibataire rek la nekkoon. walaay ndeysaan waaw ah, tubaarkàlla amiin yaa rabbal aalamiin ñu dem. noonu ba yor leetar ba. ni leen gërëm bànqaas yow mooy tiitar ba. dinaa fulan bànqaas ya denc buur ba. tani caala ba tasaare tool ba maam ak juróom wallaay ndeysaan asalaamaaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah bisimilah sëñ Babacar génn na ñu ngi koy jaajëfal xaaraat keneen mi nu jot na ba teg fanweeri simile ak ñaar mbokk mi nga tudd Ndeye Ramata Diop mu nga fële ca seew xaay di ànd ak ñun jotaay bi mais tubarkàlla jërëjëf ñu ngi koy nuyu bu baax a baax asalaamaaleykum ak Cheikh Goulda ñu xaar ko bu ñëwee rek ñu dalal ko léegi incha allah bi ah, eh, am na may tàmbalee ñaan ci ñebbe ji oustaz te ñëwagul <laughs> <laughs> eh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. jërëjëf jërëjëf. Hmm, macha allah. di jaajëf di rafetlu jotaay bi. jërëjëf jërëjëf. Euh, di ziare soxna Mbaye suñu mbay aram ak soxna Binta Faye Touba. ñoo ngi leen di fay baax a baax. ij amaru jooy ilaa xaw mi. ij amaru jooy ilaa xaw mi saadatana. tubarkàlla jërëjëf ram tubaatul ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Ndeye Fatou nga ca Mboro di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf nee na mbay nee na nga ñëwal ko ci bayit sëriñ bi waxoon ne ijaal rujuuci ila xawmi saadatana wal takfina yowma jam il xalqi niraana waaw jërëjëf ci laaj moom solo boobu mooy bi bi di jóge ci géej gi di ñibbi si loolu la defoon sëriñ ja mooy ñu am saada daara yi fi dunya wal axir la la ñaanu suñu borom ba mu ñibbisi mm. ijaal yàlla yal nanga def rujoo yi sama ñibbi ci gii ma ñibbi ilaa xawmi ci sama nit ña fa ma bokk saadat naa mooy sunu texe ma ak ñoom waaw war tag fi naa yàlla nga nu fegal yow ma jamiil xalqi bis bi ñu dajale mbindee fi góor ak jigéen ma ak ndaw nga fegal ñu niiraana sawara wa shukran ci laaj mbaam sala wallaay ndeysaan jërëjëf Oustaz ci tontu lu am solo li kii moom sa uh, mbokk la di soxna xadisi la nee mooy ndénkaan buñ la waxee ndénkaane duñ ko xam ñu ngi ànd ak yow jotaay bi di la nuyu bu baax madame Thierno Seck waaw madame Thierno Seck waaw <laughs> mi ngi lay bégge bu baax a baax jërëjëf moom baax na jëkkër ma baaxoo <laughs> ndeysaan asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah bisimilah bisimilah waaw ah, Oustaz maa ngi leen di nuyu di leen ziare bu baax a baax jërëjëf jërëjëf waaw man la Moustapha Badji Koundam Kaolack. jërëjëf jërëjëf Moustapha. waaw maa leen di ñaanal bu baax a baax di leen di jégalu nag. Mm. ñun auditeurs yi ñu leen di jégalu bu baax a baax ndax gis nañ coono di ngeen di daj nag. pour mm. ndeysaan eh, ci émission bi di tontu suñu laaj. jërëjëf jërëjëf naa muñu leen fay ñu bàyyi leen ak yàlla rek. amiin amiin amiin yal na leen yàlla dolli wér ak gudd. amiin amiin yaa rabbal aalamiin. waaw dama doon laaj eh, eh, tey boo rate woon rakk bu julli ci rakk bu njëkk bi ci jumaa. Mm. waaw naka nga koy réparé ndax da koy fay wala da ngay ànd ak ñu euh, fi nga fi nga tombé noonu. d'accord. waaw ak yéen booy jàng ba aaye boo xam ne ci biir saar la ndax dañuy tàmbali bisimilah rahmaani rahim wala. d'accord. waaw maa leen di jaajëfal bu baax a baax di nuyu auditeurs yëpp. jërëjëf. Mm-hmm. jërëjëf ñu ngi lay fay nuyoo di la jaajëfal yow itam mm, saa tey rafet lu duggam boobu mbokk mi ngi tudd Mor nga fële ca jogo di ànd ak ñun bi ñu koy nuyu mag waa jogo yëpp uh, ak waa tund wa mm-hmm. Mm-hmm. mbokk mi neen oustaz ñëw di julli daal di li nga xamante ne mooy ràkka bu njëkk nan la koy fayee waaw su fekkee daa ñëw jumaa ji fekk ñu jox jeex ràkka bu njëkk ba noppi mm-hmm. mu fekkee deuxième bi bu imaam sëlmalee day indi beneen ràkka bu am faati ak saar jàng ko ca kaw te am na jumaa incha allah wa shukran jaajëfal beneen bi ci des itam euh, oustaz mooy lan la laajate sax. Hmm. danaa ci ñëwaat léegi incha allah am na euh, waaw kay asalaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullah. Oustaz Mbacké maa waaw kay ñu ngi lay fay bu baax a baax. di la ziar di la félicité waat sa émission bi ñu ngi koy suivre macha allah am mm-hmm. waay yal na yàlla laf cat. amiin alamin di nuyu oustaz. Mm-hmm, jërëjëf di ko wax su suma yaay moo tax sax ma woote léegi la coupé man. Mm-hmm. nee na mi ngi lay jaale li ngeen bokk. Hmm. la jaale sa waajur boobu. Hmm. nee bu ne da déglu du noppalu mukk di la déglu tànk pare woo du noppalu. Hmm. Adama la tudd. moom nee na keroog ñoom Pape Diop nekk aéroport ñëwoon nañ jaale si la keroog. waaye bëggoon na caa bokk waaye daf ko dañoo dem te yëgantewul. waaye nee na mi ngi lay jaale li ngeen bokk. jërëjëf jërëjëf ñoo wax ne benn laaj bi may laaj muy. ñi di julli ji des fois da ngay gis ñu bari dañuy groupe yi ñëw julli ji mhm. mais lu ci bëri bu ñu ñëwee ci biir jàkk ji su imaam di xutba rek dañuy taxawal continuer julli ba pare ñaar rakk yi est-ce loolu dañ koy jagle comme ñu koy tuddee ci nit boo ñëwee fekk imaam ki di xutba da nga war a julli ñaar rakk doo ko toog mhm. ñu bëggoon laaj ndax loolu lu lu ñu faratal la wala dafa am na leneen lu ñu ci war a mhm. ñu rafet liggéey di la félicité waat bu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah Moustapha Mbaye 300 fukk ak ñett ñu ngi koy jaajëfal baax ci duggam bu am solo. mbokk mi ngi tudd Pape Ba mu ngi fële ca Thiès di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy nuyu moog waa Thiès yëpp te di ko bégee bu baax a baax mbokk mi Oustaz nee na euh, moom sëñ Moustapha Mbaye euh, ki nga xamante ne daal dafa euh, <laughs> Moustapha Mbaye ki nga xam ne dafa ñëw ci jàkk fekk imaam muy xutba. muy julli ñaari rakka. Mm. nee na loolu la bëggoon nga ñëwal ko ci. jërëjëf ku ñëw fekk imaam di xutba day ngay door a agsi. Mm-hmm. da ngay def ñaar rakka te woyofal ko. Mm-hmm. woyofal ko mooy nga jàng ca faatee kese mm. rakka bu njëkk ak deuxième rakka mm. bu fekkee nag imaam moo la fi fekk nga jóg di def lu ngay def naafile tudd dañ la koy tere su boobaa mm. wallahu taala alam wa shukran ci laajum maam sala sëñ Moustapha jërëjëf nuyu ñu waa kër gi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bismillah oustaz Mbacke si la ñu leen nuyu ngi lay fay di mi ngi lay fay Eh, ñu ngi lay nuyu bu baax a baax oustaz. Hmm, jërëjëf. alhamdulilah alhamdulilah. bisimilah. man nag ci sëñ Mbacke si la moom laa doon laaj. maanaam cursusam fan la jaar parce que dama koy seetaan ci télé bi yàgg koo déglu. Hmm. maanaam cursus fan la sëñ Mbacke si la jaar ci yan daara la jaar. Hmm. loolu daal lu ñu bëggoon xam loolu oustaz. d'accord wax ñu ci tuuti rek. jërëjëf <laughs> jërëjëf. ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafetlu duggam bu am solo boobu. fa mbokk mi di alfa Diallo nekk ci Ali Imran vice président di ànd ak ñun jotaay bi. Alpha ñu ngi koy nuyu moog waa bureau Ali Imran yëpp <laughs> tubarkàlla. Mm-hmm. mbokk mi ne Oussa xam naa maa ngi nii ci biir daara ji di jàng rek <laughs> loolu la <laughs> li muy laaj xam naa wala. waaw waaw léeg-léeg ñi laaj ko. waaw eh, te itam war nañ ko di laaj. ndax la Eh, xam naa dinañ ko ci dinañ leen ñëw ñëw bu yaatu wax leen suñu mbàkk si la mooy kan fan la jàngee Jurbel la dëkk ban jaar la jaar luy métier am nangam nangam kañ la neef ba jot ci jataay bii di access média et cetera incha allah di leen ko indil bu yaatoo yaatu. Eh, ne la eh, maa ngi ci daara ji rek oustaz mbàkk si la fii soto allah <laughs> ngi jàngee bu bu ma jàngee ba noppi ñu wax fan laa jaar waaye fi mu moom ñañ mi ñaanal rek li may jàng mokk bisimilah salaamaaleykum Ah, aleykum salaam. waaw bisimilah. man la Moustapha man moo dellu sax Moustapha Badji. Moustapha Badji. Ah, sama ñaareelu laaj bi mooy dama doon eh, bu fàttali ko ne booy jàng aaya bu nekk ci biir saar ndax da ngay tàmbalee bisimilah rahmaani rahiim. Ah, wala d' accord waaw kay loolu laa fàtte woon maa ngi ciy jégalu lu baax a baax. jërëjëf jërëjëf danañ ci ñëw léegi incha allah. Mm-hmm. incha ñu ngi koy nuyu baax nee na oustaz kii julli ba ne ci biir julli gi di jàng aaya maanaam muy jàng euh, aaya boo xam ne ci biiru saar la rek tàmbali ci bopp saar bi ndax def bismillah maanaam jékki-jékki rek jàng aaya bi jërëjëf mbokk mi jibi si bi wax si ñu ko ñu ndaxte ku jàng tasbit dañ lay wax ne booy tàmbali ci bopp saar mhm. da nga naan aoudu billahi mina shaytaani rajim mhm. parce que ci bopp saar bi la mhm. bu fekkee li ngay jàng ci biir saar bi la da nga mën a'uuzu billaahi mu shaytaani rajiim fa waylul lil musalliin allaziina hum an bu fekkee ci digg saar bi la bu dee da ngay julli nag nga xam ne fii ci biir julli moom tàmbalee ci bismillaahi rahmaani rahiim dañ ko ci sub ca kaw am ñu ko ca def ñenn ñu ne di leen kenn subu ko waaw fekk ci digg saar bi nga nekk rek moom a'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim yaa ngi koy wax mooy fekk julli woo yaa ngi doon jàng alxuraan rek kon awuzu billaahi mina shaytaani rajiim nga wax rek daal di tàmbali ci saar wa xam nga tàmbali ci digg ba bu dee ci bopp saar nag ba basamam bi rek xaw xale bi ñoom ñëpp ñooy bokk ànd wa sukran ci laajam bi jërëjëf oustaz as malik say almaañ jërëjëf nee na mi ngi sénégal ñu ngi koy nuyu moom waa diaspora bi yëpp mm-hmm. asalaamaaleykum waaleykum salaam bismillah Sadio Mbacke waaw yaaram ñoo jërëjëf yal na yàlla nangu siyaar ñoo lay nuyu di nuyu oustaz alhamdulilah mi ngi lay fay. mbaa yéen a ngi jàmm. jàmm rek kay tubaarkàlla. maa ngi defal coono yi. ñu ngi góorgóorlu bu baax a baax. alhamdulilah. macha allah alhamdulilah. man nag dama laaj boobu boobu mu dugal tànk ma dama cee am laaj ci laaj. waaw ban laaj la. parce que dama dugg ci maa ngi fi leen jàkka joo xamante hmm. maanaam imaam bi moo wax ne. su fekkente ne dangaa ñëw fekk imaam mën ngaa toog jarul ngay ngay ngay def ñaari rakka mhm. ba mu mel ni daal boo ko def sax daa mel ni da ngay déranger mhm. ndax man def naa ko pare rek nit am ku ma woo ne ma yow boo ñëwaatee fekk imaam di xutba day julli mhm. mën mu mel ni daal dafa xewoon de mu xawoon mu xawoon na maa yëm daal baax na beneen damay laaj beneen aaya bu nekk ci suuratul Kahf fa iz istazaltuhum wa iz i'tazaltumuuhum iza eh, nu mu. wa maa ya'buduuna. wa iz i'tazaltumuuhum wa maa ya'buduuna illa allaha mm. fa'uu ila al-ka'fi yansur lakum rabbukum min mm. rahmatihi wa yuhayyi' lakum min amrikum mirfaqa. Mm-hmm. wa tara ash-shamsa iza talaat wa tazaawaru an ka'fihim zaata al-yamiin mm-hmm. boobu laa bëggoon oustaz ñëwal ma tuuti. jërëjëf. jërëjëf. Sokran ñu ngi koy jaajëfal bu baax te rafet lu duggam bu am solo boobu. mbokk mi mu ngi tudd Sidi Seck mi ngi ci OFNAC di ànd ak ñun jotaay bi. Sidi ñu ngi koy nuyu moog waa OFNAC yëpp tey rafet lu kóllëreem ak ànd ak ñun jotaay bi. Mhm. mbokk mi ci wàllu ñaari rakk yooyu di taxiyatul masjid lay wax rawatina bu dee bisu àjjuma nga fekk imaam ci bar bi daa mel ne nit ñu baree bari nee na boo ko defee rek dañ lay laaj wala sax ñu lay balaame naan nangam ndax dafa am ci école yi eh, ñoo xamante ne dañ koy bañ. waaw xam nga bu ko mas Abu Malik tere mhm. dañuy bañ ñu jaawale ko ak naafila mm-hmm. naafila mooy ilimaan moo la fekk mm-hmm. taxitul masjid mooy yaa fi fekk ilimaan mm-hmm. comme ilimaan moo la fekk julloon nga ba toog bul def dara ndax aleyhi kat daa nekk ca jàkka di di xutba am ku ñëw toog mu ne ko hee def taxitul masjid mooy yaa fi fekk ilimaan comme ilimaan nga ba toog bul def dara ndax alayhi salaatu salaam kat daa nekk ca jàkka ji di di xutba am ku ñëw toog mu ne ko hee def nga ñaar rakk mu ne ko déedéet mu ne ko jógal def ko mu def ko ba noppi mu teg ce ne ku duggati ci yéen ci jàkka ji balaa toog na ko def loolu tax nit ñi di ko def mhm. waaw wallahu taala alam wa shukran jërëjëf aaya bi mu ci teg ma ngi ci suratu fii du sori aaya di set wa tara shamsa ida talaxat tadawuru tasaawaru an kahfihim zaata alyamini mhm. wa ida xaraba taqriduhum zaata alchimali wa mhm. man yahdi llahu fa huwa almuhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursida mhm. jërëjëf eh, eh, yi muy laaj mooy bu asaabul kahfi la sunu borom di wax ne boo leen gisee da gis ne jant bi su su su suy so lim leen di jox ciw naaj ak suy fenk lim leen di jox ciw naaj tolloo na tolloo goo xam ne duñ nëb tey waaw moo taxoon ñu nelaw nangami junni at te nëbuñu est-ce que gis nga loolu ci xam-xam ci la tubaab bi jëlee consolateur ak frigidaire nga gis ne courant lay lakk ba noppi di seral wala gaas lay lakk ba noppi di sëral waaw nee nag loolu boo leen xoolee seen leen ci digg ba loolu nag ci kéemtaan yàlla la bokk masha moom daal ku yàlla jubal hmm. kookoo jub ku jubut nag dangaa ñàkk ñaar dëgg yàlla jubal hmm. kookoo jub ku jubut dangaa ñàkk ku dangaa ñàkk ñaar wàllu yoog mursid hmm. kenn munta jub te amoo wàllu yu amoo mursid waaw. loolu tax nag mag ngi doon sëriñ. tey mooy doon wàlli ak mursid. waaw kilifa gu lay orienté. jeex na da ngay am wàlliyu. Mhm. moo wàlli boo xam ne mursid la. Mhm. wàlliyun mursid. Mhm. falan tajida lahu waliyan mursida. macha allah ku leen amul. mënoo jub. la waaw foofu foofu la mbirum sëriñ soqee ko masha allah jërëjëf mbokk mi ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax soxna Xadi Siise nekk fële ca cité Konasap moom it nee na mi ngi ànd ak yow jotaay bi كذلك بلا نبيتنا لنا لنكوك مغلا nuroo wala sëñ si ngeen daa sànki mboolem rijaal yi moo ci gën di pànk ñu dal teeral Sénégal fa waax ba. Cheikh Bamba toggloo fa Samba laax ba salaamualeykum <laughs> allo. maaleykum salaam. bisimilah bisimilah bisimilah. ah foofu waaw seen rajo. Mm-hmm. ah waaw na ngeen ngi ñu ngi sant jàmm rek kay tuwaar kàll. di rafetlu waxtaan bi. jërëjëf jërëjëf. <laughs> di siwaare ñu ngi lay fay. ñu ngi lay siwaare man la soxna Buri Mbacke maa ngi dëkk Daaru Salaam mais maa ngi leen di waaw kay Mbacke balaa naka waa Amérique. ñu am na solo trop. alhamdulilah jërëjëf. waaw am na mhm. ñu jërëjëf jërëjëf Mbacke bëgg nañ lool ci dugub bi. allah jërëjëf soxna Buri Mbacke Oustaz di wote foofu ci Amérique. bëgg nañ ci moom mbokk mu ngi tuddee Marème Ndiir moom tam ma nga ci Amérique di ànd ak ñun jotaay bi. Mhm, jërëjëf ñu ngi koy jaajëful bu baax te rafetlu ànd gi euh, xaar keneen. wajal masiiri misl hajji wa jaad fi lajri wal yumna wa kulli fi tamaat waktub li yawma bi jaay lesi haqiqati abdi wa bi turdi raji waktub li sawa allah asalaamaaleykum wa rahmatulah waaleykum salaam waaw bisimilah oustaz na ngeen jàmm rek alhamdulilah bamba si di mbaaxaan la jor Diop ñoo ngi lay siyaar baax baax yaaram Mbacke maa ngi leen nuyu maa ngi nuyu sëy Alioune jërëjëf jërëjëf ah ñu ngi lay ñu góor gi si gis sa wàll si gis sa wàll ñu ngi lay jaale bu baax a baax bu góor yi. si gis sa wàll. Euh, xam naa ne métti na. Mhm. mais yàlla mooy jox xolu muy du dëgg. alhamdulilah. Euh, euh, Oustaz Mbacké. waaw. yow da nga aay mais il faut nga wax fi nga jaar da nga aay de. ah macha allah aayu moo damay jàng ma ne. Ah. xam nga danga jeune ba ma ma naa la ko wax benn bi da ngaa teel a fen doomu jàmbur kenn du ko gémmiñ. waaw mais waxal fi nga wax ko parce que c'est très bien. waaw man xam nga du ma gaaw a gëm. man gaaw a gëm su ma gëmee nii rek xam naa ne kooku ay na. jërëjëf su ma weesoo. Hmm. oustaz. Hmm. yonent bi. Hmm. xam nga yenn saa yi si am na laaj yoo xam ne boo koy laaj dafa ngay digat. bi doom ji gaañoo Ibrahima. ndax li ñuy wax am na naan dafa jooy jooy yu méttee méttee méttee ba sëngëm ndax jooy na waaw ak euh, lan moo ko jooyloo. incha allah euh, gannaaw loolu aussi. Hmm. dama ñëwaat ci euh, oustaz nag sama tontu mais téeméeri saar yëpp ak ñeent. Hmm. yi wàcc Màkka ak yi wàcc Medina. Hmm. man dama bëggoon ngeen ñëwaat ma ci daal ngeen ñëwaat ci daal. d' accord 86 yi wàcc Màkka ak 80 ak 28 yu Màkka wàcc Medina. waaw ngeen teqal teqal ñu ma ko teqal ñu ma ko daal. jërëjëf voilà jërëjëf. jërëjëf. <laughs> macha allah ñu ngi koy jaajëfal bu baax te rafetlu duggam boobu suñu wayjur woowu Bamba Sidi Mbaxaan Diop mbokk mi nga tudd Andala Sall mu nga fële ci Kaffrine di ànd ñun jotaay bi Andala Sall jërëjëf Andala it ay dara moom it mi ngi ànd ak yow jotaay bi seen yi nuróo na li jërëjëf euh, mbokk mi nee na euh, sëñ Bamba saar yi nga xam ne ñoo wàcc màkk ak ñoo wàcc Madina la bëgg nga ñëwal ko ci secret bi ci borom bi def waaw ab liste la de sëñ Mbàkke mhm. boo xam ne doon ko lim naan nangam nangam ba mu kii dana bari lool mhm. waaye la mhm. lii wàcc màkk la ci wàcc lii madina hmm. li wàcc ci màkk nag daf doon changé nit ñi hmm. gëm-gëm yeeg pas-pas yu baaxut yeeg wékk naa naagu yeeg yu nu demee hmm. ba nit ña bàyyi ko mu commencé nag di orienté yàlla si na amul def leen nangam yàlla si na amul bàyyi leen nangam. Mm-hmm. waaw. 86 surat wàcc fële 28 di ci des wàcc màkk. Mm-hmm. ma di ma dina kon. Mm-hmm. wallaahu taala alam wa shukran. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax duggam bi am na solo ak euh, contribution yu am solo yi mu ci jiital oustaz joxe am njaalam. dëgg la jërëjëf te da ko wax ne yonent bi alayhi salaatu salaam. bi mu ñàkkee doomam jo. waaw Ibrahim Ibrahim. xakay jooy na. ndeysaan jooy ba sëngéem na yonent ab yonent def noonu. jooy ba sëngéem. sërqar ba def nangam déedéet. noona ko daal ne yàlla bët yaa ngi jooy xol bi jaaxle na waaye duñ fax mukk loo xam ne dañ ciy caalit mm-hmm. waaw wa inna la firaq ya ibrahim mm-hmm. la mahzunun wallaay ndeysaan wallaay yàlla waxoon allah mm-hmm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax salaam wa rahmatullah ustaas ustaas maa ngi ñu ngi lay fay nuyoo yal na yàlla nangu si yàlla buroo na nga def waaye jërëjëf jërëjëf di di rafetlu seen xam-xam. jërëjëf jërëjëf. mu euh, Mountakha def na lu rëy. Mhm. def na lu rëy a rëy gannaaw bi mhm. sëñ Touba def li war a def. Mhm. moom def na li mu def parce que dañ ne ay jullit. su nekkee dañoo xuloo. ci njëkk a ñëw jubóo moom moo moom moo jël moo jël drapeau bi. waaw te def na loolu sax ba mu gannaaw ba mu jubóolee ñaari président yi. loolu moom maa ngi ko ci sant ko ci gërëm. parce que nag dafa jël jikko bàyyam. parce que mhm. sëñ Abdou sëñ Abdou mooy bàyyam. Mhm. boo xoolee sëñ Abdou Khadre gis nga mooy bàyyi kan. Euh, sëñ Abdou <laughs> waaw nga ne mooy bàyyi kan. sëñ Mountakha non. ah waaw ayca. non su fekkee du nekk nga dama dégg nekkul. waaw eh, eh, sëñ Mountakha sëñ Basirou mooy way juróom sëñ Basirou sëñ Abdou Khadre nag ñoo bokk lépp moo tax benn la rek. benn la rek benn rek la kay li nga wax lépp benn la waaw waaw benn la benn la man dama lay kiire damay bëgg mu gën a xóot rek waaye li nga wax kay noonu la jërëjëf kontaan naa jërëjëf jërëjëf xam nga démb dama jël benn ku nekk rajo rajo Walfadjri bu tuuba da mhm. jëlee ko Pout dafa mhm. doon dem di seetaani football ke mhm. ci équipe bi nii <laughs> bu roogee dem de waxtaan ma koy wax sama jaar jaar man sëñ Saliou parce que man sëñ Saliou ñaari yoon laa ma ko dugg laa tàbbi dañ taal jooy sama addiya defal ma ñaan. Mhm. ba lay wax beneen affaire. waaw man bi ma amee juróom-ñaari at. Mhm. ci bés boobu na suñu fàllu nelaw. Mhm. donc man bokk na ba pare nag samay mam liggéeyal El Hadj Malick ak Serigne Touba. waaw. parce que samay maam ñu ngi Jurbel. Serigne Touba Jurbel la sëñ. Mhm. samay maam ñi ngi Jurbel mhm. samay maam ñi ngi kër gii jërëjëf Bodo jërëjëf loolu am na solo en tout cas maa leen di ñaanal maa ngi kontaan ci yéen jërëjëf yàlla na Sénégal am jàmm ak jërëjëf Bodo ngi noonu Oustaz di wootee fële ca Thiès ñi ngi rafetlu dugam bu am solo ñu ko nuyu nuyu waa Thiès yëpp rawatina Daouda Fall mu ngi ànd ak ñun jotaay bi nekk ca Thiès ñu ngi koy nuyu ak soxnaam soxna Astu di bég ci moom min wi jot na ba teg juróom fukki simili ak ñaar mhm. asalaamaaleykum wa rahmatullah waaw bisimilah bisimilah. sëñ Mbacke Abdallah Pouy. Abdallah ngeen def. maa ngi fi rek maa ma woote woon sax waaw kay Pouy Pouy. yaa ngi ci jàmm. alhamdulilah. te eh, te nga mm-hmm. eh, loolu tontu nañ ci ba pare Abdallah. waaw ah, léegi. Mm-hmm. dama dama doon laaj waaw ah. waaw. man dama doon laaj ustaas. waaw. lan moo xew ba soxna nga xam ne ci sóoratu mu jaad la. Mm-hmm. dafa ñëw jàmbat yonent bi soxlaam rek. ñu mhm. ko yonent bi jàntalee moom mu mu mu mu jàmbat ko yàlla directement yàlla yàlla yàlla wuyu ko. Mhm. lan moo xew ba ñun ñuy ñaan yàlla chaque jour chaque jour te mënuñu mënuñu am loolu. d' accord. wallaahi man laaj. jërëjëf. Mhm. jërëjëf Abdallah Pouy ñu ngi koy jaajëfal tey rafetlu duggam bu am solo boobu. ki mu ngi tudd Ndiogu Guèye Ndiogu Guèye mu ngi ci tableau Tivaouane di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf sëñ Ndiogu Guèye euh, Abdallah nee na oustaz euh, yonent bi sallallahu alayhi wasallam daa mel ne bu dara masaana xew day woo borom bi rek mu wuyu ko ci saasi. Mhm. ñun nag daa mel ne dañuy ñaan ba xaw a toskare mu xaw a doy waar léegi loolu lu ci lislaam wax. lislaam wax mooy ci ñun la. Mhm. inal jala inal jala inal ilaa xaribu. Mhm. wala xaribu. yàllaa ngi nii jege bay bëgg a dee. waaye sukkunul aalamin li xayrihi ya tax waaw loolu rek la dëgg la mooy ñun yi nu tëq mhm. alal ji mhm. doom yi mhm. kañaan gi wax du dëgg soxorante gi boo ne yaara bi suñu borom di awma si jot dëgg la loolu rek la de dëgg la xad samia allahu xawla tujaadiluka fi zawjiha xeweegut ba léegi la woon na ngi fi ñu ko def na woon nag ñoo fi nekkut waaw loolu rek la macha allah waaw jërëjëf wa shukran ci laaj na mbaam solo am na solo oustaz jërëjëf <clears throat> jërëjëf sëñ Cheikh Dem mi ci Diourbel euh, mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum waaleykum salaam ñoo ngi sant yàlla bu baax alhamdulilah tubaarikàlla tubaarikàlla alhamdulilah tubaarikàlla man lama doon am benn euh, leerlu bu ma doon leerlu rek ci yow sax la leerloo mhm. parce que euh, waxtaan fajar bi waaw ak euh, dog yi nga ci joxe ci bi ci téere bi téere bi masaalikul jinaan waaw waaw mais man dama am fii benn benn boo xam ne man awma masaalikul jinaan mais mag ma um nu rey ni la am fi ma daayu saason waaw mais damay xool presque yëpp dafa nekk benn wala ñaari yi tiitir rek ñoo bokkul waaye benn téere la wala wala daal man mm. loolu laa comprendre mm, d'accord voilà jërëjëf am na solo ñu ngi koy jaajëfal baax ci laajam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di Galaye sàll mu ngi ci Grand Dakar di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf Oustaz ñaari ci mbindum mag ñi lay laaj rek léeg-léeg da am loo xam da nga koy gis ci téere bii demaat gis ko ci beneen téere. waaw loolu loolu lool loolu noonu la. Mhm. ñaari téer yi mën nañu ñàkk bokk tur. Mhm. ba noppi bokk lu ñu ëmb. Mhm. ndax da ngay wax ci dara ba ba loola jot nga wax ko fekk ma nga ñëw ci lële mi ngi mel ni ki jàngal xawaan di wax fa bi ay ala bi ma tu ko siban mi répété wu rek baat bi répété ko li ngay wax fi nag bokkut ak la nga wax fa fële mm-hmm. moo tax mag ñi tam buñ bu ndéeb téere jox joxe ci ay dog bindaal beneen téere joxe ci ay dog mm-hmm. léeg-léeg soo ko seetloo mm-hmm. dog yi këli ak dog yi mën nañoo tolloo dëgg la tolloo ci dog mm-hmm. waaye nag fekk na bi ñu jox kii dog bi ñu koy jox fekk na dimension sàngam la toll kee toll dimension sàngam loolu mooy tax mag ñi seen bind yi di mel noonu jërëjëf wallahu taala alam wa shukran ci laajam maam sala macha allah jërëjëf oustaz jërëjëf ci tontu yu am solo yooyu ñu xaar keneen aksi na asalaamaaleykum aleykum waa waaw sëñ bi man la Ismaïla Sarr maa woote woon. léegi waaw Cheikh Ismaïl bisimilah Sarr. waaw maa woon beneen laaj bu may laaj. waaw ci daara bi. waaw. Eh, damay dégg ñu ne yonent bi mus na. ñëw Afrique. Mm-hmm. su nekkee lu wër la ma doon laaj ban pays réew la ñëwoon ak lan noo ko taxoon a ñëw ci réew moom. d'accord. salaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum salaam wa rahmatulah barakaatu sëñ Ismaïl Sarr. mu ngi ko nuyu nuyu mbokk mi ngi tudd Alioune Ba ak Umar Ba ñu nga fële ca caajaay di ànd ñun jotaay bi. Mhm. jërëjëf Oustaz sëñ Ismaïla neen dafa dégg ñu ne yonent yàlla Muhammad salaa sallam ñëwoon na Afrique muy laaj ban réew la ñëwoon ci Afrique ak lu ko fi indi woon. jërëjëf ah xam naa di man li ma jàng ci ci siira. Mhm. mooy yobaloon na ay gaa ñu ñëw Afrique. Mhm. waaw saxaaba. ña ña nga xam ñoo defoon ijra ilal Abasha. ñu ñëw ñëwoon nañu Afrique. Mm-hmm. waaye moom ci jëmmam ji nag. Mm-hmm. yëreguñu fuñ ne ñëwoon na Afrique. Mm-hmm. ñaa nag ñëwoon nañu Afrique Éthiopie lañ ñëwoon. ashabatul kiram ñoom ñëwoon nañ fi wallahu taala alam wa shukran ci laajam bu am solo jërëjëf ci tontu lu am solo lii Ousmane Samb daa sërxal ab laajam oustaz ci fenêtre bi hmm. nee kii dafa sujjóot ba noppi dafa julli ba noppi sujjóot baax de salaam hmm. Hmm, di sikki sàkk na gannaaw ba ndax sujjóot na ko wala sujjóotu ko nan la war a def ah sujjóotaat ko rek la war a def insha allah wa shukran jërëjëf ñu xaar keneen ci ginnaawam bu ñëwee ñu dalal ko bajo ba teere ba te la bamba dellu ubbi téere ba di seen mbirum duudu ma ak téere ba ubbi ko dal ci waram yi jàll bal sa bamba jàng ko ba weesu moomi keroog la yàlla atte seen diggante ci alxuraan yàlla ruyub lijjanti walaay ndeysaan mbokk mi bokk asalaamaaleykum maaleykum waaw Ibu Ngoone Mbeng yëmbal Ibu def ñoo ngi sant yàlla baax a baax. jàmm rek kay mbeng. xanaa kay di rafetlu jotaay bi di wax ne ñoo ngi koy ànd ak yéen guddi bu nekk. guddi àjjuma jërëjëf jërëjëf mbeng. wax dëgg yàlla di jaajëfal Oustaz Sall ci tontu yu leer yi. jërëjëf. waaw ah, xam naa dañuy taxaw foofu rek doon yëglu rek. Mhm. di nuyu waa soppe si defam yëpp di wàcc foofu suñuy kàddu ba ëllëg ak incha allah ñoo ngi leen di xaar <laughs> jërëjëf Ibou Ngone Mbeng di wootee foofu ci yëmbal ñu ngi ko nuyu baax baax ki mu tudd Sayar Kan taalifkat la mi ngi ci Kolobaan di ànd ak ñun jotaay bi jërëjëf tubarkàlla ñu ngi koy béggee baax a baax mi nu jënd ba teg juróom fukki simili juróom-ñett wutal ma ndox mu laab ak saabu mooy tukloor ba daan commandé poste ba ba maa taxoon ba faatuwul ca peste ba moo ko fa daa rootali di duy ay satalaam di doxi ay soxlaam di jokkante salaam du ma mbay aaya ko rootal bamba ngir bon nga ak kañaan dafa maa yomb ma nga naa ko deeka servi bis bu nekk ak sa talaam nay mar di xiif bu mu lekk si dee nga naa ko lépp luñ ma fayati ci sama weer moom laa ko faf di joxati keroog la du du mere di maa bokk dal koy fetal mu mooy badal bawaabu ànd dem la yoo ji kër gouverneur ñu déplacé duudu bamba mooy góor mu ñaani d'appel waa jafar interdit ñu daldi koy licencié njool ma perdi ca moomaat la mujj def commandant ba na mu dee mu tollu dekke dang dang Seex Bamba fab li yónni Sidi Maabo Seex Bamba fab li yónni Sidi Maabo mu dolli far jébbalu def ba waabu Seex Bamba jàll réew mi wéy yomba waa réew ma naa bu leen fi indi Bamba gale gamam jaangi ku wax ñu ne la bu jë bu géej gi tabarkallahu sëñ Moussa Guèye moo ko yëkkati bu ndar tabarkallahu di wax fi jaay sëñ bi jaaroon ci biir géej gi yëpp 88 la 628 des na 30 minutes ah, talafanaan ko yaa seexi Bamba sax Bamba jur na fa ñaaru rakk jaayante faak xayru wala njool makka bayaxtu hoofi baari taata sajara wal baaru musbidun waaw li fajara ñu fab ko yóbbu ko dunub maa yomb mook sambalaw be njaay si bawlu bamba allah bu la ndamtu di yil di buri kii bari xilam lool ñuuma yaa ki suri kii wallaay ndeysaan mbokk mi daa bëgg bokk ne ko asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. Babacar Diakhoumpa. waaw maa ngi lay nuyu di la na namoon nañ la di. waaw maa ngi raw di nuyu Oustaz Alioune Sall bu baax a baax. jërëjëf mi ngi lay fay. wax wax mention spéciale keroog si Massalikul Jinaan bi. Mm, ndeysaan. waa te ngeen yëpp kontaan nañ keroog. jërëjëf. di nuyu Oustaz Alioune Sall bu baax a baax a baax. mi ngi lay fay. ci kàddu gi eh, wax eh, aaya tabaaraka la jigéen yi mu laa bëgg mu ñëwal ma ci rek. alhamdulilah. jërëjëf nuyu ma ko bu baax a baax. jërëjëf joxum Babacar Diakhoumpa di wootee ca Tëngéej. ñu ngi ko nuyu nuyu waa Tëngéej yëpp mbokk mu ngi tudd Dieye mu nga fële ca service d'hygiène bu Tëngéej di ànd ak ñoom jotaay bi. jërëjëf Dieye ñu ngi koy nuyu Babacar nee na tabaaraka alladi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in xadir la ba nga ñëwal ko. jërëjëf ci laaj maam solo boobu suñu borom mooy wane foofu boppam di wax ne moom mooy ki nga xam ne eh, ci loxoom la. dee nekk ci loxoom la dund nekk te lu nekk la man mhm. wa ci laajam bu am mbokk mi daa bëgg a bokk wala boog ñu xaar ko ci 88 628 98 98 33 841 22 33 ñu dellu leen dugal saxaar ca yoor yoor bisib di beer ñu jàll romb wiir wiir ñu bool leen ñoom ñaar ci diggu bël ba ñu ne fa cundum faaf ca diggu dum ba keroog la seen xërëm ya ser di yuuxu jinne ya ba bambaay seexu keroog la bamba xut bu géej ga yaa waxit laa du salis géej nga xamal nit ñi dañuy wax ak lu yàlla sàkk jàngal wayin min sey bul ko sikk kun sa tura bi mos bul duusu lu du ragal yàlla mi tax ngay duusu wa saxat bi yaa ni ab doo xet sa baa bu dul man masta jaamoon ñi nga fi daal labal nañoo mooy yàlla man ma suma mooy yàlla seetal yi la. ndeysaan mbokk mi daa bëgg bokk ne eh, bisimilah bisimilah. Eh, waxal. bisimilah mi ngi lay dégg. ah. bisimilah ak moom. maa ngi lay dégg waaw waaw Oustaz. Hmm. jàmm nga. jàmm rek. waaw kañ bëggoon naa def sa numéro de mu laajte la mënuma laajte si antenne bi moo tax. baax na bu ñu noppee rek nga woote ci numéro 33 825 18 30 ki nga fekk jox la ko. ngoog ñu jaajëfal ko bu baax mi ngi noonu bu ñu émission bi jeexee da ngay woote ci cinq 825 18 30 daañu la jox numéro Oustaz incha allah. ak nooru tamti ñooñoo fa daan saare bamba wiir wiir sax bambam juróomi at maa yomba kenn waxatul samba ki dem ma bamba foofa la samba laa ba yemu xayda sax bamba jàll ànd ak jinneem waay daa ñu naa ko yaay imaam loolu yaay waxul bu lakta bindi las fi yaay waxaadi mun wallaay mbokk mi daa bëgg a bokk Baye Moussa Guèye génn na waaye ñu taaxeerluwaat keneen kii ñëw ci ginnaawam nan del si ko naa ci durus ba mu xëyee ba mu xëyee di wéy la xuus ci bul ba romb wallaay ndeysaan asalaamaaleykum bismillah bismillah waaw yaaram daani sappela bismillah leen di bu baax a baax. alhamdulilah. di leen nuyu di kontaan ci état bi. alhamdulilah. di nuyu Oustaz Mbacke ci la Oustaz Alioune Sall bu baax dina sàppe boobu. jërëjëf. di la ñaanal fan wu gudd gànde wér gu yaram rek. amiin yaa rabbal alamin euh, kon jërëjëf dana andi woon suñu siyaar rek di leen wax sax ñu ngi leen ah, ci bi nii sax baax na ci de doom sax ci sot la bokk mm. <laughs> jërëjëf ñoo ngi bég bu baax wax ci noonu mu àndee ñun jotaay bi asalaamaaleykum allo salaamualeykum. maaleykum salaam. bisimilah. bisimilah sëriñ bi. allo. allo waaw ku baax ñu ngi lay dégg. yal na yàlla nangu siyaar. waaw di leen baal ñaan ngeen baal ñaax. yal nañu yàlla boole jéggal. waaw ñu ngi leen di teewlu di sant ci émission bi bu baax. jërëjëf jërëjëf. ok. Mm-hmm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal baax a baax ci yaareem yooyu ak baaloonte àq la indi woon. Modou Mbacke Ndoye ma nga fële ca Touba di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy nuyu di nuyu waa Touba yëpp une jot na ba teg juróomi simili ñaar fukki minute ak juróom des na ci jotaay bi kenn ñi nii di ñëw asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaleykum salaam. man la Thierno Niang. Niang. Thierno maa ngi woote Saint-Louis. sëñ Thierno naka waa Ndar. allo. waaw bisimilah sëñ Thierno. bisimilah sëñ waaw Thierno bisimilah naka waa Ndar. waaw waaw nag ñoo ngi rek. kay bisimilah. tubaarkàlla tubaarkàlla. tubaarkàlla. waaw kii lay dégg. Ah, ñu ngi ah. yaa ngi en direct bitim réew yëpp lay dégg. ah waaw. Hmm? waaw léegi dama doon laajte. Hmm. léegi euh, sàngara lu tax euh, waaw loolu laa ma laaj loolu am dara sànga eh, eh, ah, naan. Mhm. waaw. baax na jërëjëf jërëjëf Thierno Birahim nuyu ñu Ndar yëpp. Matar Ndoye mi ngi ci jokkul production. bi mhm. ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. Mhm. Euh, sëñ Thierno nee na Oustaz lu jiitu yonent bi alayhi salaatu wa salaam di ñëw wala ñëw na ab diir sax te dañ daan jëfandikoo sàngara. muy laaj nag lan moo tax ginnaaw ba ñu tere ko. tax ñu tere ko de sunu borom wax nañu ko. innamal xamru wal maysiru wal ansaabu wal azlaamu rijsum nee sàngara ak carte ak gisaaneeg jàmm xërëm rijsum sobe la sob ñoom ñeent ñëpp ay sobe lañu muy benn min amali cheytaan ci ci jëfi cheytaan la bokk muy ñaar mu dem ba ci biir mu ne innamaa du cheytaan an yooxaa baynakum al adaawa cheytaan da bëgg dugal ci seen seen diggante mm-hmm. daf cee bëgg dugal ak noonoo bëgg cee dugal ak mbañente mm-hmm. bëgg dox seen diggante nafar alxuraan mm-hmm. juróom yii bokk na ci li tax ñu aaye ñeent yi looloo tax ñu aaye ko wala taala alam wa shukran ci laaj ba am solo bi jërëjëf oustaz ñu ngi koy jaajëfal ci tontu dugg am solo boobu ak tontu li di la xaar di xaar keneen ci ginnaaw di gaañ naa ko mais alors dem jaay gi seeg moo di ànd ak Birama Siise mi waa lux dooni seex nañu seex Bamba no seen ruuya jëbal ko Bamba boole kook seen jooya saamoo di ko keroog doomam ja Ahmadu saamoo di la moog ndeyam ja saranki mooy ndeyam ja gis na Bamba seen xabru yaa nga foofa waru maa yomb seex Bamba romb leen fi wéy baru wali keroog la way adaayi xulu fa daayili fara tabaskee mooma at bil iidi roofihi xat kuroo la way saa moo waj iya tegal saa xur bi la way keroog làq na xayra xur bi nee na keroog jox nañ ko mboolem umra jaari ka rasuuli dafa ani naafiu fii li barwali xablu bi maa yaabi tuni wali keroog mbokk mi daa bëgg a bokk asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah. yaaram. ah Oustaz Mbacke. Hmm. Xaadim Mbaw la seen sopp. Ah, ah, eh, ñu ngi ziara bu baax a baax di lu seen waxtaan. jërëjëf. di leen ndokkeel bu baax a baax yaa Oustaz Oustaz ñu ngi lay nuyu bu baax. jërëjëf ñu ngi lay fay. di leen ndokkeel bu baax a baax Oustaz tamit ñu ngi lay Oustaz Alioune eh, Oustaz ñu ngi lay beral nuyoo keroog tamit ci Masaalikul Jinaan bi. jërëjëf jërëjëf. Eh, yaa Oustaz Alioune Mbaye seen taxawaay wax dëgg yàlla ñëpp rafetlu nañ ko. alhamdulilah. kera réseau bi moo xawoon a naqari waaye wax dëgg yàlla li nga doon wax moom amoon na solo lool yàlla xam na ko jërëjëf jërëjëf ñu ngi la ciy ndokkeel di ñaan yàlla def ko sa téere jëf jërëjëf di ndokkeel sa Alioune Sall tamit bu baax a baax jërëjëf ñu ngi rafet lu baax waxtaan bi di nuyu ñëpp euh, xam naa bëgg naa ñëwal ma ci sooratu Yusuf rek hmm. tuuti rek ci aayu njëkk yi hmm. waaw Yusuf ci aayu njëkk yi rek baax na ñu ngi ci ñëw léegi hmm. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal tey rafetlu duggam bu am solo boobu. jaajëfal mbokk mi di Pape Seye ma nga fële ci université université Gaston Berger bu Ndar di al ñun jotaay bi. jërëjëf mbokk mi di sëñ Mbow euh, alo salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah bisimilah. dafa génn waaye ki duggoon léegi di sëñ bi saa suratu Yuusuf la doon wax nga ñëwal ko ci aaya yu njëkk ya nahnu na alayka ahsana alqasasi bima awxaynaa ilayka haada alqur'ana wa in kunta min qablihi la min alxaafilin waaw waaw bi yonent bi di woote mhm. woote bi métti ay mbokkam weddi ko mhm. ay doomi baayam ki doomi ndeyam ñëpp weddi ko mhm. sunu borom ne ko dama laa bëgg jàngal ne la genn gone goo xam ne yaa ko mag ñu bare ko mag waaye teewul ba ko ay mbokk mu ne ginnaaw weddi ko. dafa dëgër këng. ba xëy nekk seen sang. looloo waraloon nettali xisa Yuusuf. waaw looloo war a nettali xisa. Mm-hmm. Mm-hmm. ba mu ko nettalee ba noppi. Mm. yonent bi jëlee ci dëgër goo xam ne gi mënut ko jël ci feneen. wallaay nekkoon lu wees tey. luutu mm. mu am ko waxuma laa di jooy. wallaahi est-ce que wallaahi ndeysaan. est-ce ah. salaam. yaaram. noo def jàmm rek maa ngi wootee Cap Skirring. naka waa Cap Skirring. sant yàlla. ba yéen a ngi ci jàmm bu baax a baax. maa fa est fàtte ma waxal tur bi. bisimilah suñ suñ mbokk mi ci Cap Skirring. maa ngi koy wër de tur ngi nii kay akam maa jege waaye xam nga léeg-léeg bët li ko jege dëgg du ko gis. waaw <laughs> yow léegi mën naa jàpp ah. émission boobu yàlla xam na ne jàpp naa ko lool sax kay xanaa daf maa kii rek. Ah. dootuma ko dootuma ko dootuma rëccati dégg nga maay sa ambassadeur Cap Skirring. waaw waaw loolu moom wér na booy. <laughs> booy bu lay fàttali rek ambassadeur. booy booy booy. waaw sax man dama doon laaj mbirum dëkkandoor keroog dëgg naa ngi waarelu mhm. man daa am ñi ma dendal fii. waaw. mooy suñ place ñoo jàkkaarloo. Mhm. léegi dama gis ni bu may jàpp nii damay moom daf may xoolee bët quoi bu may jàpp. Mhm. pour julli nii. léegi dama doon laaj ndax loolu baakaar la wala du baakaar. ak tooñ na ko tooñ jëkk <laughs> jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax rafet <coughs> rafetlu dugam bu am solo boobu Modou Boy Cap kiriñ mbokk mi Njinde Guèye la ak yaa faatu ñoom ñaar ñëpp ñu ngi ci Tiwaawoon Pël di ànd ak ñun jotaay bi ñu ngi koy nuyu bentali di nuyu waa Tiwaawoon Pël yëpp <laughs> tuwarkal la eh, mbokk mi de ci wàllu dëkkandoo lay wax <laughs> hmm. eh, ak yu demee noonu nee na daal bëgg na nga ñëwaatal ko ci waaw eh, ki nga xam ne da ngay jàpp mu lay xool hmm. ah loolu du dara koy jàppal rek ginnaaw jàpp la hmm. ndax maa la itam laaj bi waajibu illa bi hu waajib mm-hmm. ngay jàpp pour julli mu lay xool mm-hmm. xool li mu lay xool yàqut ak dëkkandoo mm-hmm. jàpp gi ngay jàpp itam yàqut ak dëkkandoo wa shukran ci laajam bu am solo jërëjëf ci tontu lu am solo loolu ñu xaar keneen ci ginnaawam aa di ñebe ànd ak naar sa fi daara te dong ñaa jigéen ña mel ni saara Kërëmoon ak Zahra yendu caawo ndaw jaxasoo bambara ne teg nii dafa bëgg a <coughs> bokk ci jotaay bi asalaamaaleykum. maaleykum salaam. waaw bisimilah. Fatou waaw. waaw kay Sankharé. da yi. jàmm rek nii la am soxna waaw. mu hmm. ko moom yóbbaale. ma ne. Hmm. Hmm. parce que am na fu ñu bindee aaye pour cigarette cigarette. Figare parce que dégg naa ay Maroc Tunisie Égypte dañuy toog bu suba nga rafetlu ko rek dugg. Mhm. yooyu yooyu. Figare mhm. est-ce que am na fu ñu ko bindee ñu ngi ko tiiree dama dégg ñu ne que sip sip la ñu laa dégg sip. Mhm. mais mais mu leeral ñoo ko Figare. d' accord jërëjëf jërëjëf ñu ngi koy nuyu tey bekki gëm bu am solo boobu mbokk mi alxaaji oustaz Codé Soog la tudd mu ngi fële ca Grand Médine di ànd ak jotaay bi ñu ngi koy nuyu baax baax soxna sëñ Codé alaaji ñu ngi lay nuyu tey nuyu soxna si mm-hmm. eh, wala soxna yi mm-hmm. <laughs> ndeysaan mbokk mi nee na oustaz cigarette la bëgg nga wax ko wala tux ci boppam la bëgg nga wax ko moom bu dee araam na ndax daa am aaya bu koy araamal wala déet waaw illa yi alquran di jàng ba ne dàngam daa araam mm-hmm. buñ nattee cigarette mu jox ñu ko rek mu araam buñ ko nattee joxuñu ko nag ñu sib ko waaw bu alxuraan ne wala tulqoo bi aydikum ila tahluka maanaam bu leen xaru wala wala taqtul anfusakum bu leen xaru bu leen xaru ñu gis ne ku tux benn cigarette am na lu muy dindi sa dund ñaar yu noonu ñett yu noonu dañu xool su fekkee lor yaa lor yooyu muy tere ma nga ca moom ñu teg ko ci lu xaraam bu fekkee benn loraa ngi nekku ci nag ñu teg ko ci lu sib loolu rek la waaye du wax nag inama cigarette ndax bu ne inama cigarette tuurul cigarette ba mu tudd ba ca des day day day day day dagan mm-hmm. waaw wum dàq rek wa ca des wum dàq rek wa ca des mm-hmm. moo tax bi muy aaye sàngar daf ne inamal xamru baatu xam rek la def mm-hmm. waaw rek lépp dugg ci biir dëgg la cigarette la waaw moo tax kon bu buñ nattee daal gis ne day lor day yàq alal day yàq ak wér-gu-yaram ñu gisee yooyu dañ naan kon ka daa xaraam bu fekkee ne du lor du rey du yàq alal su boobaa ñu ne kon dañ ko sib léegi nattukaay yi bàggu na nag ku nekk ñun natt borom xam-xam ñoom ñoom kase ak ñoom seen yooyu mhm. yàlla na ko yàlla yokk wér ñoom dañ am nattukaayu ndax cigarette dana lor wala du lor mhm. wa sukuran léegi nag waa Tunisie ak waa Maroc waa Makka loolu nag loolu nag du du du diine du nattukaay du nattukaay du nattukaay ci araam ak dagan ndax waa màkk a nga koy defam déet mu ngoog mhm. ndax waa màkk fi ne suñu bàkk ñoo gën a sonn ci àdduna si mhm. ci buntu jàkk yonte bi ñuy bind ne cigaret day rey mhm. ndax bëgg bàyyi ko waaw yonte bi nag dafa xaw a bokk ci seen aada mu ngoog culture ñu ñu weex ñi yonte bi mosu koo def mukk dëkk ku koy def amul ci saaba yi ñu ko doon def ñum kenn daawu ko def moom daf daan wax sax ne ku reere lu xasawu mbala boog lu xeeñ hmm. lu mel ni sobleeg laaj gul hmm. julli si jàkk ji hmm. waaw ma ne xam naa bu ñëwoon boo moytuwul xetu cigarette dana ne woon euh, sori leen jàkk ji masha Allah way sukkurat am na ko nekk nii asalaamaaleykum kooku génn na ñu ngi koy jégalu bu baax a baax di xaar keneen ci ginnaawam defe nañ fukki simili ak euh, ñeent ngir ngeen ànd ak ñun jotaay bi هو ولي دار النصارى خديم واد قد أدان سارة إن المهاجرين والأنصار لن يعبدوا يهود والنصارى yahuud wa nasaara eh, ñu jéggulu ko xaaraat ko eh, bu ñëwee ñu dalal ko asalaamaaleykum waa waaw kay. waaw la bambatee ñu fab yanam ba salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Yaaram. Alaaji Gueye Trento. Alaaji naka waa Trento. ñu ngi fi ngi sant bu baax alhamdulilah. tubaarkàlla baa yéen a ngi ci jàmm bu baax. ñu ngi sant bu baax a baax. incha allah ngi ziar saa saa leen di la ñëpp ñuy déglu nag. jërëjëf jërëjëf. di yónnee nuyoo soxna Oumy si ak Serigne Nguer Seydou Bolzana ak Serigne Mbaye Mm-hmm. jërëjëf. ginnaaw loolu moom xam naa tey dañuy dugg di barkeel rek di ziar noonu ak di indi ay tuuti. Mm-hmm. barkeel ci ci ci wax yéen doon wax xibaaru daara ji rek. jërëjëf. ñu toll ci li nga xam ne mooy école bi pour surtout nag école bi man de moo ma ci gën a metti moom. Mm-hmm. ndax école boo xam ne dañuy bàyyi ba mu tijji tey tey tey tey ju doogay xam ne saal boo xam ne tëj nañ ko ñetti weer. su fekkee ni dañuy jàng tey. waxuma la dara waaye ay xale yu ndaw di ca nekk ak ni mu wóoradee mhm. ndax saal bu nu te ñetti weer ubbi ko tey bàyyi kaak ay xale nu koy bale xamuñu sax lu ne ca biir mhm. loolu wóoradi na wóoradi goo xam ne te at yi moom la ñuy wax ni mhm. la neneen dañuy ubbi tey jàng tey te at yi yëpp li li xew tey jii moo xewoon at yee ci ginnaaw te jàngatuñ ci dara bala mooy gëm ni nag am nañ président bu boo xam ni man gëm naa ni kii président la te dara raxu ko ministre bu ko def def bu la ko jëlee rek teg fa keneen rek ma xam ni am na président ndax lii amoon na daaw amoon na daaw ji am na ren te bu déwénee incha allah day amaat bu soobee am fekkaat lii leen waxaale dëgg la de solution la de waaw kon nag kon noonu liñ ci war a taxaw ba jàngatu ci ba léegi <laughs> mooy lu tax ku ko def kenn du la wax dara mm-hmm. ministre bi def nag kenn waxu ko dara dara fekk ko ci ba léegi mais nee na lu lu normal la daal ndeysaan te tëdd lu lu lu jéggi daay la ndax école bu ñu ko tëjee du dañ koy tëjaat ba école tëjaat ba ñetti weer yàlla école tëj. nga bàyyi ba mu def une hmm. nga ñëw ni da ngay defar école. jërëjëf loolu loolu xam ay ay lu kenn xamul la dafa mel ne naxante laal daal te mag ay mag duñ naxante. yàlla na yàlla di yërëm li al oustaz waral yàlla na yàlla yërëm. amiin ginnaaw lool tamit ñu ngi ñaanal ñëpp ci safar gi di ñaan yàlla yàlla yóbbu ci màggal gi jàmm ñu ñaanal Cheikh sëñ Modou sëñ Mountakha mu yàgg lool jërë ngeen jëf ñu ziar jërëjëf jërëjëf jërëjëf Alaaji Gaye Turentoo ñu ngi koy jaajëfal. ñu ngi koy jaajëfal mbokk mi Alxaaji Moom di Lamin Seen la tudd mu nga fële ca Ndoomoor di ànd ak ñun jotaay bi. ñu ngi koy nuyu moog waa Ndoomoor yëpp Alaaji Gaye di indi na am jàngatam Oustaz ci uh, ubbiteel école yeeg ubbitey jàngate yeeg ni ñu koy waxee te muy fanqu. waaw ubbitey jàngate daal suñu mbàkke. Hmm. dañoo war a teg wax jëf fële te di ko def. Hmm. nañ teg wax jëf fële. Hmm. te jéem di ko def. bu école tijjeetee ñu defar ko ba mu baax. bu ñuy école tëj na trois mois yooyu ñu defar ci école ba nga xam ne bu xale bi dañuy ñëw rek toog jàng. kon nañ bàyyi wax ji te di ko def. mu jox tàkk. tubarkàlla ñu jaajëfal ko baax xaar keneen ci ginnaawam. la dentanaan kalaame. seex yi baawal ngir bëgg fay lislaam yi. jarbaat ba moo jëblu woon dem tuubi ndem di jooy. mu naa ko tuubi bi eh, asalaamaaleykum. maaleykum salaam. bisimilah. bisimilah yaaram. asalaamaaleykum. waaleykum salaam waaw. waaw maa ngi en yaa ngi en direct da bàyyi rajo boobu ngay déglu rek te tàmbalee wax. waaw waaw naa rajo bi. ah kay bisimilah kon. allo. bisimilah yaaram. waaw dama doon kii rek man ci Alioune Sall ci boppam dafa am benn sama benn eh, jigéen bu baax kii la yaa restaurant. Hmm. mais ko bëgg la ba pare dama laaj benn question. waaw. maaleykum salaam. sëñ bi yow la ñuy déglu bàyyi sa rajo bi te wax maa ngi dëkk Ndar Thierno Niang laa tudd. waaw. waa léegi soo jàng alxuraan. nga hmm. nekk tout tànk. Mm-hmm. waaw nga nekk tout tànk. rek la déglu. sëñ bi si waaw léegi su ngeen da dóor pour ngeen mokkal alxuraan est-ce baax na wala baaxul nga nga ngay tër da dóor nga naka mokkal alxuraan baax na wala baaxul. d'accord. jërëjëf ñu ngi koy jaajëfal bu baax tey rafetlu dugam boobu. mbokk mi professeur Songe mi ngi ànd ak ñun jotaay bi te nee na di ko rafetlu. jërëjëf ñu ngi koy nuyu moom itam professeur di la wàccee sa wàccuwaay. Mhm. mbokk mi nee na ndax ki jàng nit alxuraan di ko dóor ndax bëgg mu mokkal lu ci lislaam wax. waaw bu fekkee dóor yi du dóori gaañ. Mhm. du génne deret. Mhm. du dóori toroxal. dara nekku ci. waaye dóori toroxal bëgguñu ko te mooy di ko dóor ci kanam ay nawleem. loolu bëgguñu ko. di ko dóor ba génne deretam bëgguñu ko di ko dóor ba mu tërgën bëgguñu ko mm-hmm. yooyu bëgguñu ko ci mm-hmm. waaw loolu daal mënati naa jàngal nit ba noppi ba jàng ma mokk te duñ ko def noonu mm-hmm. wa ci laajëm bu solo bi jërëjëf ci tontu lu am solo li ñu jaajëfal ko bu baax xaar kii asalaamaaleykum maaleykum salaam bisimilah ah, waaw man ah, ma jël lu mel ni classe ma maas ko bi may jàpp ma jàpp waale ci kawam. après am benn côté boo xam ne sax commencé woon na xolleeku. ma xolli ko. daal di dagg foofu noonu. après ma doon laajte ba xam ne li des na foofu wala. waaw wala manqué na. d' accord jërëjëf Oustaz ci ñëw léegi. ñoo ngi koy jaajëfal baax ci duggam bu am solo boobu. mbokk mi Omar Diallo la tudd ma nga fële ci Ziguinchor di ànd ak ñun jotaay bi. jërëjëf sëñ Omar ñu ngi koy nuyu mbokk mi dafa doon jàpp waaye ci tànkam dafa am fu dagg doombut ñu bànd ko wala yu demee noonu. Mm. nee na daal euh, euh, nan lay jàppee moom. waaw boo jàppee baax si cër boobu da nga koy masaa boo jàppee baax si cër boobu doo ko ragg ndax comme dañ ko bànde ci dafa am góom. Mm. boo ci defee ndox mën naa am nga gaañu. Mm. da nga koy masaa. tooyal si ñaar loxo rek jaar la ko ci kaw ci suuf. Mm-hmm. wala ta wala ci kaw wala taala alam wa shukran. bisimilah asalaamaaleykum waaw ñu jaajëfal ko bu baax a baax. Mm-hmm. dese nañ juróom-ñetti simili ci jotaay bi. laa yey woy si am kulu fi lan faali la yàlla jox jibrilu bilaawaali ba maa ko jox maam seen noo firiwaaya